alkitab bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman waahibu naafi fi lmadaayi saafi bismillahi irrahmani irrahim allahuma ya akramu salli ala sayidina muhammadin ilfatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaxa naasiri ilxaqi bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim مثل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نسر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلها مما تتقنا بها هور العين والولدان في الجنة التي وهد المتقون جلها من أحب السكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام بسم الإله أنمولها بلا مناع ولا انتهاء بسم الإله أنمولها بلا مناع ولا انتهاء بسم الإله أنمولها لا لا

bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw ba leen yoo ziar leen ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaan seen njaboot di ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër Sud FM seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci Ndakaaru dellusiwaat na ak yéen seen alkitab alkitab barnaamij usbuu'i yu'idduhu lakum wa yuqaddimuhu lakum waaw Oustaz Alioune Mbaye taxiyatan tayibatan mubarakatan min indillah taxiyatu ahlul janna ala wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëñ Mbacké Sylla mi ngi nii ci studio bi ginaaw boo xamante ne oustaz Alioune Sall tabaarkalla mooy présenté émission bi di njiit ki di direction bi di ko jiite tey jii mu am ci yu mu nekk waaye nag dana mel ne mi ngi fi incha kon sëñ Mbacké dama lay bàyyi nga nuyu mbokk yi te wax ñu programme incha allah jërëjëf oustaz Mbaye ñoo ngi lay fay nuyoo te di la nuyu di nuyu mboolem ñi bàyyi xel si defem seen rajo rawatina seen jotaay bii di alkitab jërëjëf euh, na def <laughs> maa ngi sant bu baax baax nag yëngu yi waaw mi ngi fi rek amul lu ma la namewul de. waaw moom de xam naa li xale yi di wax naan fii la ëppee. waaye fii la ëppee. <laughs> misbaax la lay kar rek. waaw ndeysaan misbaax misbaax waaw bis baax moom li sa sa sa sama yaay ji te sa maam ki na maam ki na Thiam. mos baax mos baax. Mhm. mais mais gis naa ko mi ngi fi de. mi ngi fi mi hmm. ngi mi ngi fi di ma la laaj. ndeysaan mook euh, maam Bigué Sow. ndeysaan waaw. Euh, ndeysaan ak soxna Adja Biti Puy. ndeysaan wala ak mère Biti waaw. waaw mère dem nga fa. mère Biti maa ngi koy waaj ndax xam nga itam borom këram dafa génn àdduna. waaw waaw demoon naa fa. waaw kay dama koo yeex a yëg waaye maa ngi ca maa waaw ñu waaw allah danañ jëm jaale ji jërëjëf tubaarkàlla jërëjëf tisaakumulaa kon nag ana gaynde waaw oustaz Alioune Sall de tey itam xam na daa wuute waaye wuuteeg jàmm rek ni ma koy faral di waxe ndax bu nekkul ci jotaay bi rek mi ngi ci lu mel ne jotaay bi mm-hmm. euh, am jumaa joo xam ne daa dem ca ubbite la fële ca ndar mm-hmm. euh, loolaay li nga xamante ne tey jii moo tax mu wuute jotaay bi ci jëmm waaye ni nga ko waxee dana ànd ak ñun ci waxtaan wi tamit mi ngi ànd ak ñun nii ci maanaa incha allah ñu ngi ànd ak ñun kon nag mooy loolu mm-hmm. naa du ñàkk ci kanam dañ ko jëm a làmb incha allah mu <laughs> démarche yeeg émission bi bu bëree. Mhm. il faut ñu am boobu compréhension. Mhm. jéem ko euh, comprendre. Mhm. te jàppale ko ci mission bi incha allah. tubarkal jërëjëf Oustaz Mbaye kon noonu nga ko waxee rek noonu la ni ñu ko baaxoo tëralee lañ koy tëralee donte moom dana wuute waaye yaa ngi fi ñu di la jàppale incha allah <laughs> xaaj bu njëkk bi dañ koy ubbi waxtaanee ni ñu ko baaxoo defee ba dix heures jot ñu dem euh, ci tënkum xibaar ya daal dellu si nag jël auditeurs yi ba dix heures trente bu ko defee ci la ñuy tàmbalee seen seen i laaj ba onze heures quarante cinq. ndeysaan jërëjëf oustaz Mbacke Sylla oustaz Aliou Sall ñu ngi lay nuyu jéem a taxaw sa place nuyu la ñi nga daan nuyu boo fi musaan toll dinga am ñoo joxañ leen naa ngi leen di nuyu beral leen nuyoo nga tibbee ko ci eh, tanazalul malaaikatu war ruuxu soo nee malaaka yëpp daañu wàcc war ruuxu ak jibril kon da mel mel ne jibril bokkul ci malaaka yi waaye nag ci la bokk soo ne maa ngi nuyu sunu jigéen ñi nga xamante ne ñu nga ca marché bay daan seen doole daf génnewu leen ci jigéen ñi waaye ñoom ñëpp benn lañu secrétaire yi nga xam ne ñu ngi ci bureau bi ak ñi nga xamante ne ñu ngi ca marché bay jaay ak natt yéen ñëpp asalaamaaleykum. suñu mbokk yi ca géej ga suñu mbokk yi ca bitig ya yéen ñëpp asalaamaaleykum. dawalkat sareet yi ngeen moytu circulation bi yéen ñëpp asalaamaaleykum. maçon yeeg menuisier yi ak mécanicien yi nga xam te ne ñooy ñooy ñooy secteur informel yéen ñëpp asalaamaaleykum marchand ambulant yi ak horloger yi horloger yi ñëpp ñu ngi asalaamaaleykum suñ mbokki tayir yeeg mbokki tata yeeg taximan yeeg clando yi yéen ñëpp ak coxeur yi nga xam ne ñoo yor bi mag paa yi nga xam ne màggat na ci garage yi ak paa yi nga xam ñooy daax ñu saas daan waxee daaxkat yi yéen ñëpp asalaamaaleykum biir réew meeg bitim réew mi ñëpp dañ leen di boole benn nuyoo muy baatu asalaamaaleykum ñëw ci studio bi fekk fi sëñ Mbacké Sylla mu itam muy sol tey yaakaar naa zone zone claire ah. Euh, zone claire. wala wala bi la ñuy wax meew. moom ah, mooy meew meew lañ ko daan wax ñun ca daara ja meew. Hmm. <laughs> waaw bu dee fii mooy euh, léeg-léeg euh, defe naa balaa kaase la ñuy wax. wala boo bees waaye mooy doon mooy tolloo meew daal. <laughs> meew daal moo gën a wala. waaw meew daal boo ko waxee. Ah. bu mas gis meew rek moom laa sol. dina xam ni boobu la. <laughs> ndeysaan. maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay fay. maa ngi lay fay ana waajur Diourbel waaw Diourbel ñu ngi lay nuyu na sa dëkk léegi mbokki lébu yi waaw ñoom maa ngi leen di nuyu baax a baax li ma lay comprendre ci yow mooy léeg-léeg nga ne lébu nga waaw fi ne daal moom daanaka rek fu été bi toll daal mu fa nga non pas fu été bi toll hmm. ginnaaw bi ma ma bokkee ak ñoom yëpp hmm. eh, damaa gis nag yu bari eh, <laughs> moo tax ma far tudde noonu rek dégg naa sa mbokk bi ci wagaam Diouf Diouf démb waaw waaw te te yow doom Mbàkke rek comme la tur wutal la fa kër boole la intégré la waaw ah yow dem na ngay bari dañ ma koo dig nag <laughs> ñëwagul ma <laughs> dig te ñi ma bëggoon ñu woo ma ca lébu ga dëgg dëgg woowuñu ma ah, woowuñ ñi ma doon copte naan leen ay waay copte ma ma bokk woowuñ ma ay juuf lañ ma boolee rek <laughs> yu kenn xamut <laughs> baaru baaru xeer la wala la waaw ah, doy na waar de doy na waar li waa ji naan kenn séeré wu ma ah. léeg ko ci politique bi man dañ maa séeré moo tax gis ma sama bopp kenn séeré wu ma gis wax la ko tey naa gis ko sa bopp waaw tubarkalla xam naa di la jot li nuyoo suñu xarit ba Mamor Dia Padois Mamor Dia waaw bu ko defee nga jot li ko ay cant ndax am na si ci yow a ah, jëm si ci yéen yàggu sax Alioune jërëjëf wax kam àdduna mhm. yëpp te ko doon te mhm. ko ci sax nag waaye ku def lu rafet des koy wax mhm. ginnaaw ku def lu ñaaw nit ñi am sañ-sañ wax ko boo defee lu rafet waxeef ko dëgg la kon ñu ngi koy sant noonu mu ngi nuyoo daal rajo bi wax dëgg yàlla noonu la itam la luy nemmi ko kon noo koy ñaanal lépp lu mënu dox ngir yàlla koor geeg euh, participation soñeenu ko mm-hmm. yàlla na ko yàlla ci téere jëfam ak mboolem nag ko xamante ne def nga lu ne mel ak ko yéene woon def te mënoo ko amiin yaa rabbal ndax yéene dana di mu mm-hmm. la ko woykat ba waxee mm-hmm. kon nag woon def te mënuñu yàlla na jox leen yéene jëf ak yéen ak jëf amiin def ko maam Mor Dia Padoane moom bañ na ko ba fu mu dugal ni maa ngi nuyu sama ñetti ustaas wax dëgg yàlla loolu ak par la ak faare la hmm. ak jiite ñu ngi koy gërëm bu baax yal na yàlla yokk ko amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf Oustaz Mbaye kàddu yooyu rafet na mu hmm. yóbbaale suñu yos ak yi ko jiitu yëpp hmm. na ngeen def ak coono yi ñu ngi dem ak ñëw rek ajuma ji weesu la ndax xam naa dangaa xawoon a soogi ñaagaan waaw moom koy ne damaa waxoon ñëpp leen ñemewoo koor waaw ñu am luñ ci laam laame waaye bi ñu waree rek nga kaawute day wane ne ñemewoo koor ndax li la dal yëpp bis korte la la dal dégg naa <laughs> moom daal kenn xam naa daal moom daal lu yàlla tuddoon la rek. Mhm. ay door kala moom daal. sant rek moom nan ko doon defuk cant rek. alhamdulilah eh, eh, yàlla yàlla mottali. amiin amiin yàq sew bañ a damm. incha allah amiin amiin yaa ndax yàlla amiin. yàq sew a damm mm. loolu am na solo oustaz. naka yëngu yi. waaw dem ak jëm rek ñu jaabante rek. door mhm. kala ni ko oustaz di waxee rek. waaw ñeme. Mhm. te xam ni du nu yàlla nu yàgg a war. amiin du nu wàcc mukk te te dugalu nu bàmmeel. adduna moom kabadin rek. ndeysaan waaw coono rek. Mm-hmm. li mu war yàlla moom lu gaaw a wàcc. amiin ñi ko fekkee rek koy wax. Mm-hmm. waaw li ko Oustaz di waxee li ko ñi ko fekkee rek koy wax. Mm-hmm. Uh, yal na yàlla boole ci ñi koy fekki. amiin amiin te ñu koy jàmbat alhamdulilah yal na nu yàgg a war. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax te di ko ndokkeel mm-hmm. eh, di bég oustaz mbay ci noonu nga xamante ne noonu nga introduire waxtaan wi am mbégte ci jàkkaarloo ci ak yow ci xaaj bu njëkk bi eh, fas ci yéenee dugg nag mm-hmm. ginnaaw bi nga xamante ne noppi nañ ci julli gi eh, ak yi nga xam ne moo fi jaar yëpp bisu korité teeg taxawaay yi nga xam ne def nga ko ci ak li ko jiitu itam ci guddi weeru koor gi li nga xam ne dund nañ ko ci conférence yi jeexital yi nga xam ne koor gi def na yëpp yooyu yan taxali xaat nga ciy def waaye wax dëgg yàlla koor de moom xam naa ne <clears throat> xam naa la sax de moom du ngeen ci ah, d'accord waaye bu ñu ko mënoon bind yàlla daf leetar. dañu koy wax mu def ko ñaari weer. Ah, waaw ndax yàlla koor moom day faj. Mhm. day faj ci biir ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne suumu tas xoo woor leen ngeen wér. Mhm. wér ci jikko wér ci bakkan wér ci melokaan waaye wér tam ci matière. Mhm. ni ni sa matière yi ni nga xamante noonu la euh, professeur euh, professeur Ramadan di faje cër. Mhm. dina boo wooree bu fekkee da nga jabetoon mu am lu mu ci joué boo amoon cardiaque mu am lu mu ci joué boo mhm. amoon euh, bépp feebar boo mën a am rek koor moom dafay faj. léegi scientifique yeeg maanaam maanaam science ñëpp jàpp nañ ni koor day faj. te loolu mooy li am. noonu lay fajee tam jikko. ndax faj sa jikko ji ba dootoo ba di nga tàyyee la dem mm-hmm. seetaani lu bon mm-hmm. tàyyee la organiser lu loolu amee tuyaaba mm-hmm. tàyyee woo mbooloo mi ñuy perdre seen temps ci loo xam ne amul bopp amul genn doo ci am ngërëmal yàlla perdre sa temps la te wala asra ja buñ ko fàtte inna insaan la fii xusrin kenn du ko fàtte koor day ñëw di la tàyyeeloo ca loola bu ko defee nag boo fa jógee nag nga jàpp ni biir bu fees moom dafay indi sawar te day indi euh, xalaat mbiri wooteem po tëgg fecc cëppi cëppi yooyu yëpp dafay tax nga perdre sa temps. àdduna mhm. euh, bi fi mu agsi nii tëgg ak fecc ak nelaw ak topp sa bakkan taxul ñu agsi fi. Mhm. boo gisee ñun réparer rek ay defar carcasse la ñuy man mhm. ñi nga xamante ne jekku nañu adduna bi yëpp dañu xam ne tëgg ak fecc am na am na temps bu ñu koy def. wootem ndaje di perte temps am na ci jamono bi ñu koy def waaye li ñu gën a favoriser mooy liggéey ak liggéeyloo suñu xel uh-huh. yaatal suñu xel gën ko améliorer pour ñu gën a bokk ci marché mondial uh-huh. waaye bis bu yàlla sàkk sa plateau yeeg émission yeeg yëpp tëgg fecc cëpp cëpp lekk ba suur nelaw defe ne loolu la te loo loo man sa nawlee ko defar nga jël ko di ko di ko jëfandikoo loolu taxul nga développé dëgg la du ko defee di ngay dema di mooy xuloo mer ku la deful ku ne nga di ko gëdd ku ne nga ko xeeb di xeexante suñu biir nga defee loolu mooy ma ah. fekk na xel moom buy nelaw rek moom na la wóor ni moom daanaka li ngay tanee bàyyi ma euh, bariwul moo tax yàlla ñu ñu mu jox xel rek ñooñu la teg ñooñu la togg jëf ku mu ku mu joxul xel toogu jëf. Mhm. ma ngoog. warkan la ku mu joxul xel toogu la jëf doomu aadama la jox xel kon togg ko ay jëf. ko jëf. mu tegoo jëf ji ba jëf ji noppi nag. Hmm. Euh, defe naa daan nga wax ñu waxtaane bu ñu tollee fii bu weeru koor jeexee. Hmm. ñu ne ku doon jaamu yàlla wala boog ku doon jaamu weeru koor weeru koor moom dem na. wallaahi waaye nag koo xam ne nag euh, yàlla nga doon jaamu moom mu ngi fi du di di dund ba nëgëni. looy wax ki nga xam ne ci weeru koor gi moom nit la woon. jullit la woon hmm. ku sell la woon léeg sax bu ñu tuddee nit ñi ne ah da ngaa woor de. bi mhm. eh, mu changé habillement complètement mhm. bu julli gi jotee mu ne ñoo ket waaye fi ne bi ñu waree delluwaat na ca na meloon bu njëkk avant. Mhm. Eh, doonaat kam doonoon loolu loo ciy wax. loolu mooy kii yeeru. ki yeeru. yeeru nga xamante ne da lii laps la rek. nga jàpp ni eh, koor gi moom laps temps la rek. bu fi ñëwoon léegi mu jeex nga daan nekk ca la nga nekkoon. bu boobaa xiif ak mar képp nga doon def. te xiif ak mar ëpp nay def. dëgg la. ndax bu fekkente ne xiif bi ak mat bi terewul a bàyyi dara koor gi ak weer mu toll ñu mu megg taxul nga am lenn loo changé parce que koor day ñëw pour supprimer day ñëw pour supprimer yu baree bare bare ba pare enregistré bu fekkee da ngaa woote supprimer wuloo dara daanaka mën naa la ngi mel na nga dem di jaay këriñ ba julli jumaa jot nga sol sa gaññaa bu weex tal su rugoo ko dem julli ji ñàq yaakaar naa wàcce sa kaw di nga xam ni sangoo gënoon uh-huh. donc kon man lam yada qawla zuur wal amala bihi fa laysa lillah an yada taamahu wa sharabahu uh-huh. koo xamante ne nii koor mën la tàq léegi la nga nekkoon ca ba nga wooragul uh-huh. sunu borom yén saa sa ne sunu borom nee na soxlawul ci ngay teg sa lekk geeg sa naan gi bàyyi ko fële déedéet la du koor dafa lu muy lu muy def ci yow bàyyi xeex bàyyi xuloo bàyyi jëw jikko yu ñaaw yooyu yëpp nga bàyyi ko bàyyi siis bàyyi xir bëgg àddina di dajaleeg di kopp koppal fu lu nekk lu sa loxo nekk lu nekk sa sa sa nekk ca bëgg waabale ak bëgg fee mujj ak bëgg am lu dul jeex di jàll rek jëmal kenn dul xam loolu koor da koy dindi ci nit ndax boo xiifee war nga xam ne kon ñi xiif te amuñ lu ñu lekk sonn nañu uh-huh. nga xaaj sa gennoolu alal gi dimbali leen uh-huh. boo nekkee ci jafe-jafe nga xam ne jafe-jafe njaboot nga xool wóorlantee xale yëpp xiif nañu uh-huh. seen yaay ak ñëpp a ngi xiif ak ni mu méttee tey nga xam ne kon kon ñi néew doole war naa leen a dimbali yooyu yëpp dafa am solo léegi bu la nee kocc nga ne ah man kat dama woor man sama xiif bi ak sama mar bii duma ko bàyyi ci du ma ko jox nit boo ci génne ci koor gi nag nga wéel loolu bu nit ne kobas ne waaye yow dégg nga li diw nga ne ah déet uh-huh. bàyyil bàyyil bàyyil mu jàll nga xam ne bàyyi lekk ak naan bëccëg hmm. moo jeex hmm. waaye nag nite ak yàlla araamaloon yëpp te koor doon ko jàngale ba léegi mi ngi war a des ci yow ba mi ngi des ci yow dëgg la bu bu la kenn indil wax uh-huh. wax jox inna min xosni islaamil mar'i uh-huh. tarkuhu maa laa yaani tarkuhu maa laa yaani waaw bokk na ci liy rafetal njulitug nit mooy bàyyi lu la amaloon ndey koor gi nag dañ koo jeexale ay wax wax yu bari ci pénc mi yoo xam ne seetlu nga ko hmm. euh, polémique yu bari ak yu leer ak yu leerut mhm. yoo xamante ne léeg-léeg ñu xaabaabal ci léeg-léeg itam ñu yamamaay ci mhm. li ma tudde loolu mooy mm, euh, pëccëxoo mhm. bu amee nga xam ne kii day wax jaar fi kii wax jaar fii kii wax jaar fii ñetti kan ak ñeent bu amee rek dana am ku ne ci digg bi koo xam ne li mu war a xam lépp du doy kooku daa mel ne noppi ak dégloog laaj yi moo ko war waaye ñun ñëppay àndandoo di coow loolu itam man njàngat nga ciy def mooy mooy bi ma la ci jëkk doon wax rek mooy euh, wax ak waxandoo bokk ci coow li xam li xew. xam li xew ko gën dëgg la. mooy ñetti groupe yooyu nga wax. Hmm. bari na ñoo xam dañuy coow rek. Hmm. wal xaw fii laalakum taxlibuun. Hmm. leeru gumba rek lañ koy def coow rek wax rek ratatat te li ngay wax tegoo ko fenn. du jub xam-xam du yaqin. du lenn loo xam xamante ni moom nga ci xam da ngay coow rek. te loolu nag bu yàggee. Euh, day indi pëccëxoo te pëccëxoo war am réew warul dem ci pëccëxoo. déedéet aw askan tam waruñu dem ci pëccëxoo. Mhm. suñu borom nee na. Mhm. Euh, wala tanaazau fa tafchalu wa tazhaba rixukum mhm. bu leen di xëccoo xëccoo mooy ni pëccëxoo mhm. man la yow du yow am njaay indi jóob mhm. comme malal suñu junior jaay suñu mbokk ma lay ndeysaan bu dee def reportage yi ndeysaan am njaay indi jóob yooyu wax am njaay indi jóob am njaay di ko joxalante ko joxalante waaw dégg naa ne diw nee na di demale ka fekkale rek yooyu moo ku amul ku am fulla nag ah. yooyu daf la dul déranger yow. la ndax bu dee bu dee boo yéeg ci garab te ku la sànniw xeer nga wàcc fork sànniwaat. Mm-hmm. dootoo dootoo yéeg. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne waxaleen jig. dëgg la am ñoo xam ne dañu war a wax. ndeysaan am na ñoo xamante ne dañu war a noppi. Mm-hmm. liggéey. ku ñuy séntu ci programme di la séntu ci résultat hmm. bu dee ku la ne ndong la ne coy nga ne ka gel waaw doo dem dëgg la de nga doo dem dëgg la cocc nga ne ko cocet ah. <laughs> day mel pour nga génn ci day jafe am na solo loolu Oustaz Mbaye ñu dellu si na kon muy réew mi nga xam ne ñun ñoo ko bokk mm-hmm. te nag luñ bokk moom dañ koy bokk rek mm-hmm. daa am luñ bokk man koo séddoo mm-hmm. xëy na ku dem wecceeku ci bitig ba ku ne jël am loo xam ne dañ koy bokk waaye kenn du ko séddoo ndax ku ko séddoo mu yàqu loolu nag am réew la ak nite la pas-pas la ak marché yi nga xam ne war nañ koy sàmmante suñ biir hmm. loolu itam boo ko doon gën a jàngalewaat di ci gën a dugg noo koy defee waaw moom xam nga xam lu naan hmm. lu ñëpp bokk hmm. lépp ñëpp lu ne ku ne nga ca xam moo xaw a jun sax sa laytaayu laaj waaw waaw ci ni pëccëxoo waaw waaw ñëpp bokk bu yàqoo ñëpp fi maanaam benn añ bu ñu teg te bu këppoo ñëpp di ñi war na fexe ba mu bañ a këppu dëgg la mooy réew mi nu bokk ñun ñëpp ki ko jiite moomu ko ñi koy laaj moomuñu ko. ñun ñi itam moomuñu ko danu koo bokk ñun ñëpp. dëgg la ku ne nag war a for nag ak matt goo def ci taal bi. Mhm. muy matt goo xam ne du saxaar. Mhm. wala matt goo xam ne du yàq. Mhm. du yà du du du du yàq togg bi mooy bépp wax buy tax dënn yi jóg. wala bépp wax buy tax euh, xol yi tàng. warees na ko seet bal nu koy wax. waaye itam bépp jëf boo xamante ni boo ko jëfee mu indi dut. wala mu indi heure heure wala lu leerul. waroo koo jëf. loolu li ñu tuddee transparence leer nañ li na nañ gàññ ràññ. loolu jafee la ci. état laïcité waaye. naññ gàññ ràññ. waaw naññ moom mooy lu leer nañ. naññ mooy lu leer ba ni nañ. ba ni nañ waaw. gàññ mooy lu bari ba ni gàññ. ràññ. waaw xam nga nañ naññ gàññ ràññi waaw moom la moom la sunu mbokk mu doon taggee Sidi Hadj Malick ndeysaan mooy boolee nee na moo Alaaji Malick moo nañ naññ ràññi gàññ ci maanaam bari na ba ne gàññ waaw leer na ba ne naññ waaw waaw ja uh-huh. leer na naññ waaw xam-xam ba bari ba ne gàññ ba naññ bo leer ba nga ba gën a leeraat na meloon leer naññ waaw xam ne bépp heure heure boo doon am ci xam-xam fekk lu mën a doon bu la ko leeralee rek nga ne ko ah moom kay nag leer na nañ ko ay la yéwén waaw mooy waa ji leer na nañ donc donc la ci état islamique mhm. Sina Omar noonu la meloon ndeysaan Sina mhm. dafa daan am na ay saxaaba yoo xam ne sax mhm. daf leen daan kàcciri maanaam bu yet wareen dal seen kaw leen koy teg waaw bu yet waree dal sa seen kaw kon yaa ngi ñëw ci ne kilifa daa war di di bu waree bu baaraamam duut ko ci yëf yi ak ku mën a doon waaw teg baaraam ci bët boo xasee ba nekk kilifa mhm. amatoo famille mhm. vie de famille mhm. non boo xasee am vie de famille rek am gàllankoor famille bi daa am fu mu yem waaw am li ñëpp bokk am fu mu yem sama doom sama jabar sama rakk sama jarbaat sama sama yooyu bu duggee rek ndeysaan nga commencé am gàllankoor ndax deret day daal di ñëw dëgg la Seydina Ousmane. yal yàlla gërëm ko. amiin euh, yonent bi sallallahu alayhi dafa ni am na kenn ci yéen ko xam ne nii euh, dinañ ko boom. te mbokk ak deret mooy tax. ndeysaan. mbokk ak deret. mbokk ak mooy tax. Seydina Omar. amuloon mbokk. amuloon xarit amuloon doomu ndey. dëgg gi rek. moo tax bi yéen sallallahu alayhi wasallam di wax ni. maanaam bu dëgg teewee daal yooyu yëpp dàqu na. moom bu dëgg xasee teew moom amatul doom amatul jorbaat. moom dëgg gi rek dëggu yàlla gi rek moom noonu iqaamul xuduud. moom nee na loolu moo gën a neex ci mbir mi. taxawal institution yi ba institution jaar ci yoon. dëgg la. Euh, ñoom euh, Abu Hurayra waaw yeneen saxaaba yu bëri yooyu yi nga xam daan doon ahlu ahlu ahlu suufa mmh. ahlu suufa xamoon ngeen waaw bu baax ahlu suufa ñooñu mmh. ñoo daan toog ca mbaar ma ci buntu kër sang ba alayhi salaatu wa salaam ndeysaan aay bu tey xadis bu ñu wax ñu mokkal ko. Mm-hmm. jaaxaan rek a añ ak lekk yëpp leen fa fekk. di mm-hmm. bàyyi leen ci noonu Aboubacar bàyyi leen ci loolu mais bu Omar ñëwee leen ni yàlla du fay du taw xaalis du fay du taw urus dem leen ngeen liggéey hmm. nga xam ne Seydina Omar kon ci politique am Oustaz Mbaye su ma la déggee mooy da daan encouragé nit ñi ci liggéey ci liggéey waaye bu poste masaana teew it ñu war a fal hmm. euh, loolu itam ñu jële ko ci njàngale bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ab juddu mën naa bañ a tax euh, maanaam ak mbokk man naa bañ a tax hmm. bu fekkonte ne fal na itam nga du gouverneur wala loo man di doon buñ demee ba war a sanctionné gis ne ay jaxase dafa am parce que boobu gouverneur mooy garaat bi gën a rëy euh, Euh, ci li nga xam ne moom lañ daan tiitaroo maay mm-hmm. gouverneur dëkk sàngam mm-hmm. wala réew sàngam mm-hmm. ndax état bi daa nekkoon benn amirul muminin nekk fenn réew yi ci aju yëpp mu yilif leen dafa yebal aw nit waaye daan na atte ab gouverneur euh, parce que am na ci koo xamante ne la ko waxoon euh, mata tabattumu naas waxat wala datu ummuha umu ummuhaatuhum ahraara kañ ngeen bëgg a jàppe nit ñi ay jaam te seen ndey jur leen ñu nekk ay gor waaw <laughs> loolu loolu question bu bu am solo si na Omar noonu la daan mi demoon na ba sax dañ ko ragal. ndax dañ jàpp ne xëy na loolu ëppal fekk na nit ñi foofu ngay toll. il faut fooy toll bu fekkee seet nga wicc. te dëggu dinañ la dinañ la jàppee dictateur. mais nit ñi jàppee la ko baax te yàlla jëppi la du benn. nit ñi mën nañ laa mere te yàlla sopp la lool. nga boon nga nekk mahbuban indahu. ku ñu sopp ci sunu borom subhanahu wa taala. te Sina Omar noonu la meloon. li li ngay junj léegi nii. am na benn benn al asri Moussa al asri. yaakaar waaw na am na ku mu faloon gouverneur. Mhm. Omar ibn As. ba boolo boobu. Mhm. Omar ibn As moom <laughs> da ba pare. Mhm. six mois rek waa ji am ay xar yu bëree bëree bëri am ay bëy. ah bañ naan moom kay sa waay gouverneur bi kay moo fi ëpp alal. Omar woolu ko. ndeysaan ni yow bi ma lay fal. amuloo sa ñaari peeri dal. kañ foo jëlee alal. mu ne ko waaw ah, bi may dem dama dem sama fasu jigéen ma yóbbu woon mhm. dama dem dugal ko fasu góor ma yóbbu dama dem dugal ko ñu jox ma fasu jigéen bi mu tëboo après ma am fasu góor ma jaay ay ma daway nag def di wane di wane daal cirque fi mu jëlee alalam di wane fi mu jëlee alalam ndeysaan sëñ naa mu Omar ni ko mhm. man yónniwu ma la pour nga def ay marketing mhm. yaa ngi dégg waaw poste bi loolu taxul ma jox la ko poste bi du du loolu mënoo nekk foofu gouverneur ñëpp di xaar sa signal lu ñuy jaay jaay la ko lu ñuy jaay jaay la la vente <laughs> aux enchères lépp nga di ko nga àll ji mu jaay lépp dafa ci baytil maal macha allah macha allah donc xool xool ma yooyu yooyu taxaw yooyu taxawaay am na benn euh, ci wàllu euh, mbokk mhm. Sina Omar mhm. Ibnul Xatab benn général boo xamante ni dañu ko dañ ko nommé woon mu jiite geer bi mhm. bi ñu ñibbisee ñu séddale bitin yi mu gën cee néew la mu revendiqué gouverneur ba sumi ko ko ci kanam mbooloo mu bind lettre si naw ndeysaan Seydina Omar ni ko demal nga simmi ko yow gouverneur bi ci kanam mbooloo mu dóor la ni nga ko dóor ci kanam mbooloo mi mbaa mu futti uh-huh. bi bi góor jotee lettre bi. dafa daal ni ko sant naa yàlla ndegam dëgg gi Seydina Muhammad sallallahu alayhi ba léegi am na ku koy taxawee. daal di nangu daal di nangu. nga xam ne amoon nañ sens mu yilif leen. Mm-hmm. doon ku mat kilifa. Ah. waaye ñoom itam ñu doon koo xam ñoo xamante ne nii bu àtte bi masaana dal seen kaw dañuy yëg ne dafa dal seen kaw. ngir defar ñu nangu ko ñu nangu. am na koo xam ne boo ko àttee te ko ci yoon da nga koo dimbali. da nga koo dimbali. waaw da koo dimbali. Euh, Omar ibn As. Hmm. mooy bi nga di ñu léegi. waaw doomam moom ab course la bokkoon. Hmm. ci Égypte. Hmm. ñu dal ñu ñu raw ko. mu jël karawaas gi caw ko ki eh, adversaire am. ni ko man maay doomu ku baax. sama yaay mooy première dame. ndeysaan ngay may baadoolo bi. <laughs> dóor ko. koo ko si ko Sidna Omar ci aj gi bi mu jeexee mu woo ko ni ko uhuh. yaa def loolu mu naka naka non c'est-à-dire parce que amun ko ee eh, waxuma la loolu ndax lii xale bi wax yaa ko def yaa ko seetaan wala ña fa nekkoon ni wax nañu dëgg mu ni ko uhuh. kon sa doom nekk ko fi mais influence ak tixit gi xale yi nekkee uhuh. ba ñuy dóore ci biir nit ñi ci yow lañu ko gisee boo leen yaroon du ñu ko def dëgg la daal du koy simmi dëgg donc l'islam moom dafa nekk lislaam complet boo gisee nag ñun bu ñu wax lu jëm ci suñu gouvernement yeeg. nangam nangam dañuy jàpp ñoom lay l'islam tonku leen. Mhm. waaw l'islam tonku leen. leen tënk mooy laïcité. dëgg la donc moo tax ñu bare leen man bu ma leen déggee wax sa xalaat wala nangam ñuy wax dama dañuy wàllu lu bokkul. te ndax oustaz mais léeg-léeg sax nga wax ne euh, l'islam tënku leen xëy mën nañoo bañ a tënk ci ay atte yu ñuy atte woo. waaye ki nekk ab jullit ci doxalin. Mhm. l'islam daa war a def jeexital ci ay jikkoom. naam te it buy wut modèle mënta am modèle bu gën a rëy. Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xam ne ñoom la formé woon. Mhm. te ñoom bi ñu yoree gouvernement di ko doxal. lam mhm. leen jural dafa nekk ay résultats yu positif yu baax yu jub allahu akbar ndax li ngay wax nii tey ci euh, maanaam bonne gouvernance mhm. euh, tey ki nga jot a indi rek muy Seydina Umar ibnu Xataab radiallahu anhu mhm. buñ ko ci royee mu doy sëkk sëkk boo delloo tey ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. ba mu jàppee ba ñu indee ab sàcc koo xamante ne dafa jël lu moomul ñu war koo atte tam bokk ci famille boo xam ne jàpp nañ ne famille bi kenn waru leen a laal ndax di leen attee ka tegi daan ñu koy publier ci journal yi humiliation la yonent bi dañ leen la alagoon xeet ya leen jiitu mooy ku fa tedd ku bokk ci askan wu tedd lu mu def lu mu rëy rëy ñu bàyyi hmm. ku bokk ci lu ndaw ndaw nag lu mu def lu mu maanaam atte bu jaarut yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee moo alak askan yi ñu jiitu loolu walaabul na ba tey ci ñun kañ ah kañ hmm. baake loolu loolu rek valable nag parce que da nga wax wax bu am solo da nga ne bu ñuy lislaam tëngul ci suñu institution yi waaw war nañoo mën a tënk ci jikko war nañu mën <laughs> a ci ci ci ci ci ci pas-pas mhm. ndax dafa am lu nu gëm ci mhm. koo gis mu dafa am lu nu gëm gëm nga mhm. lislaam li tax nga téye sa bopp wooroo woor lekkoo naanoo parce que pas-pas la dëgg la gisoo ki la ko sant xamoo ko waaye ngëm-ngëm la kon lu war na mën a référé wu ca loolu gis nga ñaari ñaar dafa am ci loo nga doon wax bi mu nee wallahi law anna fatimatu bint rasul sallallahu alayhi wa la qatab yadaha wallahi su fekkoonte ni fatimatu bint sama doom sama doom bi ma jur ku ne xam ne yonent bi ni meloon ci fatima allahu akbar doomam yëpp jiitu ba mu des fatima mu ni ko bu sàccoon waaw ma dagg loxoom allahu akbar waaw daal di wax nag li lii nga wax ni xeet yi leen jiitu woon mm-hmm. lii ko yàq xoolal am na beneen ne am na ci wàllu mm-hmm. ci wàllu baatin teera mm-hmm. ba ñuy denc fatima ndeysaan wax nañ am na benn baat bu ñu def leen ndànk mm. xam leen ki ngeen di denc mooy kan mm-hmm. mooy doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mm-hmm. batuul mooy doxra wax a wax mm-hmm. am beneen lisaanu xaal bu ko tontu ci biir ni ko suul leen man du ma néegu askan du ma néegu gaño duma ma néegu famille lu mu baax ñu ngeer ko su fi indee yiw ñu dugal yërëm ko su indee leen leneen la fi uh-huh, uh-huh. yooyu yëpp dafa doy nag sëkk am njàngat ndeysaan wallaahi wallaahi njàngat wallaahi eh, ni nga ni li xam nga li nga ci ñëwee dafa doon discours bu responsable boo xam neex na ma daal mm-hmm. ndax eh, xam nga eh, wax bu ñëwee ci mpénc Oustaz Mbaye mm-hmm. kilifa du du du du bokk ci coow mm-hmm. maanaam ngelaw du ko yóbbaale du mel ne du du mel ne aw xob. Hmm. waaye fu mu yëkkatee kàddu di wax. Hmm. ñay dégg war nañoo dégg. kàddu hmm. yu mm, responsable yoo xam ne kàddu defar moo tax. bari na euh, bari na ñoo xam ne léeg-léeg ci wàllu wax. Oustaz Mbaye euh, dañuy dañuy nelawal aw askan. te loolu baaxul am na discours l'islam boo xam ne day nelawal aw askan am na discours politique boo xam ne day nelawal aw askan am na discours société civile ak bu man di doon boo xam ne da ngay ñëw di tàpp-tàppal nit ñi ci biir ma maanaam mbalaan yi mhm. ngir ñu nelaw te loolu amul sens mhm. askan wuy nelaw du jëm ca kanam ndax bu ñu jógee dañuy toj ak rajaxee ka yàq askan wu yeewu nag dañuy nite xam ne ñu toj ñoo koy tabaxaat ëllëg ñu fexee tabax jëm ci kanam très important Mbacke mhm. wax nga wax ju am solo te gis nga mën nañu jël loolu sax ci tubaab yi booy xool tubaab yi système éducatif bi ñuy jox ñun. Mm-hmm. xoolal ñoom bi ñu jox seen bopp. Mm-hmm. seen plateforme bi ñuy jàngalee ñoom. Mm-hmm. tubaab yi ñoom seen nawlay bopp yi. espagnol yi italien yi français yi ni ñuy. xëccoo ci marché mondiale ku xëy créé benn oto wala benn avion wala nangam nangam ñu ne ñii waa famille waa réew sàngam réew mi moom itam génne loolu lañuy ñuy wujje ñoom mais wujje wuñu toj ak démocratie ak marche ak garab ak saaga mhm. marche ak garab ak saaga nag aw ma lu may wax ci ñoom mhm. mais parce que ñi leen jiite ñoom itam ci loolu lañ doon nekk mhm. parce que dañoo xëy dañoo màgg rek waaw dañ ko jàppe escalier pour màgg rek ñu gëmloo nii comme quoi que ni droit de garab dëgg la droit de marche mu ngi ci constition bi léegi libéré nañ ñëpp war koo def après c'est quoi ça sert <laughs> <laughs> dara dara lu dara dara lu indi ana loolu ñu ubbi suñu xel yi. Mhm. xam ne ñun comme ci ay bor lañu ñu judd. Mhm. réew mi ñu ba ñu koy jot ci ay bor. Mhm. ak ay pièces ak ndëgg sërëx yu ñu yeew suñu loos yu ñu ngodd la ñu fekk tubaab yi xaar ñu nag te na naan te naan ñu nag yéen a moom seen bopp yéen a moom seen bopp yéen a moom seen bopp gi paasewul lamiñ mais booy xool tuuti rek yëg ne ñun moomuñ suñu bopp boo demee ba ca biir gis ne maanaam buum gi dañ ko raccital rek ngay wër gétt bi waaye am na fooy àgg ñun la déet ñun la taxawal fii la war a yem waaw léegi ñoo noo koy xamee yow ñuy jàngale loolu mhm. ñu am ay savant ay boromi xam-xam mhm. am ay université yu leer loolu mën nañu ko wax xale yi ñu mhm. bàyyi ñun li ñu def def seere sentir seere suñu ceinture. Mhm. jéem def suñu bopp xam nga valeur yi ëpp solo pétrole baax na. Mhm. gaz baax na. Mhm. waaye xamul ko gën. mooy nite. nite parce que ki nite mooy mën a yor jaasi. Eh, xam ne jaasi day dagge. waaye rayee taxu koo jóg. <laughs> dagg dong ko tax a jóg. yor ci war a dagg mu dagg ci te rey. waaw <laughs> yor jaasi. waaw jaasi ju ñaw. waaw war nga yor fetal mu wóoral na kii. tu dóor ko ni taxul ñu jox la ko. maintien de l'ordre. ndeysaan. ku nga nga xam fa war a yem dëgg la bu la jaralee daw sax yow mi policier bi mhm. mais boo demee moom mu tàng sax mu wóor a jàll na sax yow nga daw mhm. ngir wut jàmm la ndax tuur bakkan ak rey nit jaaduwul dëgg la yow mi itam nga xam yaay étudiant wala nga xam yaay gërëw yaay nga xam yaay laaj say droit mhm. nga xam sa bopp ndax jàngal nañ la ko ca à bas ca école ba nga xam ni revendication fii la mën a yem dëgg la boo ko passé yaa ngi jéggi zone rouge dëgg la bu defee kenn du xeex wallaay bu nga doon kon ah, ah na nangam leer nañu ubbi débat nañu ubbi enquête nañu ubbi nangam bu ñu teeloon yar nit ñi teg leen ci yoonu saal suñu dàq bi duñu mm. egsi fii wallaay wax nga dëgg ki war a leeral na euh, na leeral ba mu leer naañ ñi dina dimbalee mm. Oustaz bay loolu boo ko dugaloon ci cadre yërmande rek mm. day da cay dugg te yam ca kepp mooy aw kilifa Eh, daa war a yëlam askanam mm-hmm. aw askan it daa war a yërëmtalu tey góorgóorlu mm. gis nga tey bu bu directeur wàccee di génn ci suuf mm-hmm. ki muy romb mu taxaw ci bunt bi mm-hmm. wala ki muy romb tey mu sonn lool tumurànki moom xalaatam bi mu war a am yëpp mooy kii nan laay def ba mu nekk ci condition yu baax parce que moom loolu mooy li ko war mm. boo ko jëlee exemple ci moom di yéeg ci kaw ba ca këñ dénk réew wala lu man doon li réew mi am te ñu moom ko nga observer tiim réew mi ni mu mel da nga naan nan laay def ba mi jariñu ci suqaliku nit loolu mooy tagg hmm. waaye am na loo xamante ne nit ki góor góorlu ba am ko bu dee alal la hmm. boo góorgóorloo ba ami milliard danga gis ku mës a nekk président gis ku mës ta am mbokk gis ku mës ta lijjanti ku mës ta am lu ni toll hmm. te moo ba muy dem yóbbaale wu mu ne liitaru liitaru pétrole duñ ko suulaale kenn mukk <laughs> mukk voilà kon dund dund ba bàyyi fi aw woy yàlla xam na ne dafa war a gënal as gor dund ba bàyyi fi alal allahu akbar suñu mag ñi loolu lañ daan xantiwoo bàyyi fi aw woy Euh, yaa ngi fàttaliku. yaakaar naa suñu Mbàkke Cheikh Mbàkke Gaynde Fatima wala ci mag ñi kenn mhm. ku ñu ni woon mhm. yemba yi daa ñëwoon ci jumaa ja wallaay ndeysaan ñëpp bàyyi fa seen i mhm. mu toog fu mu tax fi mu toog ndeysaan yënguwul buusewul ndeysaan tey ba léegi ñu ngi koy waxtaane loolu moo doon ngar mi loolu nag la mag ngi daan ma nommé maire dëkk sàngam mm. fii ba mm. ba téeméeri at ku fi jaar da nga gis fu ma marqué sama ne maa fi def lii maa fi def forage bi waaw maa ñun suñu dalifoor bi euh, xam nga euh, la la nga xam ngay wax gis nga suñu dalifoor gee yàlla xam na ni mm. école ba làmp ya hmm. robinet ya sunu paa ya fa nekk te màggat ñoo hmm. ko xeex ba état dimbali leen ñu door koy am hmm. suñu souveraineté ñun waa Dalifort ñoo ko xeex ba am ko yàlla xam na ko donc loolu nag ñëpp waroon koo def maa fi def école bi maa fi def euh, dispensaire bi maa fi def forage bi mm-hmm. maa fi def robinet yi ma bi ma fi nekkee la fi nangam am bu fi nangam la fi nangam am mm-hmm. loolu bokk na ci palmarèsu nit ku baax koo xamante ne bëgg nga liggéeyal sa réew sa très important wallaay waaye maa jël lii wala maa def lii loolu loolu taxul wax loolu taxul ñuy wax mbaa loolu xuloo ko xeex rek ah. ku ne di tontoon loolu nag day lu ñëpp man waaw xam nga lu nit ñi mu mën a wutee te rawante ci mm-hmm. mooy tiim ndab lu fees dell te moomoo ko nga maandu ca waaye tiim ko lekk ko hmm. xar yeeg bëy sax boo tegoon ngooñ muñ moomut buñ ca àggee dañuy tàmbalee lekk ak nite daal mooy loo moomut nga ba ko fa li nga moom sax nga lekk ca yam loolooy ak nite exactement nag bokk na uh-huh. loo moomut bàyyi loo moomut mi nga jërëjëf Oustaz <laughs> nu ñu def waaw de xam naa ma bàyyi la nga dem te ñëw incha allah boo ñëwaatee ñu làmb gi góor gi duñ fa yàgg incha allah ñu daal di dem te ñëw incha allah merci aousu billahi mina sheytaani rajim asalaamaaleykum yi groupe préscolaire islamique oustaz Alioune Sall ci cité Soprim mooy yëgal mbokki jullit yëpp bés bu mag bi nga xam ne at mu dañu koy amal ren nag ñu jàpp ko incha allahu dimanche ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin ci cité Soprim ci fi nga xam ne moo di terrain basket bi programme bi nag ni lañ ko tëralee incha allah daañu dalal gan yi su ko defee nag 9 jàpp 13h ci la xale yi di tari alquranul karim 13h ba 14h oustaz Alioune Sall ñëw nag ginnaaw bu ñu jullee tisbaar ànd ak ñoom defal leen waxtaan. kon ñu ngi ko yëgal mbokk jullit yëpp muy groupe scolaire islamique bi ñu duppee oustaz Alioune Sall nekk ci cité Soprim kon ñaar fukki fan ak ñett incha allah muy tombeek dimanche ci terrain cité Soprim bëgg nañu nag bu 8h jotee ñuy ñaan képp koo xam ne jullit nga rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkk ci cité Soprim waaye képp kuy ndongo daara képp kuy jàngalekatu alxuraan waaye rawatina yi tamit képp koo xam ne soppee oustaz Alioune Sall nga daara jooju nga xam ne moom la ñu ko duppee te mu fas yéene faa teew incha allah ndongo yi daañu tari. kon le 23 juin 2019 bu 8 heures jotee ñu ngi xaar ñëpp ci terrain basket bu cité Soprim dimanche le 23 juin asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. falwaslu yudwi dillata damaani. bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. waahibun naafi fi jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Mbacke Sylla technicien alim kon nag yaakaar naa ne sëñ Mbacke li des ci temps bi moom. waaw daa mel ne àgg nañ ca miir ba hmm. euh, dañuy bàyyi rek nga daal di jekkasndiku bu ko defee ñu daal di tàmbalee jël auditeurs yi. ñu jël tàmbalee jël auditeurs ñu def noonu te ñëw shukran jërëjëf. sallallahu taala alayhi wa sallama haysu quriat aw kutibat aw nusira ilayha abadan amin ya rabbal wajalha mimma tataqana biha huurul xiin wal wildaanu fi ljannati allati wahida almuttaquuna wajalha min ahabi sukni ilayka wa ilayhi alayhi salaatu wassalaamu bismil ilaahi yan muluha bila manaaye wal nihaaye bila manaaye إِذَا ngeen jëf ci déglu bi mbokk yi ziar ak nam tubaarkalla ginnaaw boo xam ne nii <laughs> ziar nañ leen baax a baax say bàkke bàyyi ma waay ah, waaw <laughs> kon ñu daal dem ci beneen xaaj bi ci topp te mooy xaaju auditeurs yi mooy dem ci xaaju auditeurs yi te mooy 88 628 98 98 ñaari yoon mi ngook bu dee waa bitim réew 33 841 22 33 mi ngook kenn ñi ni Ousmane Mbaye dalal ko asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw yaaram na nga doon fa woote. El Hadj Mbaye daal di tudd. El nga def. sëñ Diallo Ba. Mbaye Mbaye. ñu leen di déggee. ñu ngi leen di dégg baax Mbaye. yan balu di leen baal àq. jërëjëf ñu ngi lay baal Mbaye jërëjëf Mbaye. yal na yàlla boole jéggal ñu ko teewee. amiin amiin weeru koor yëpp ci diggante ñu ay ay gàllankoor ak ay affaire adduna mbaa mi ngi maa ngi tane. waaw alhamdulilah alhamdulilah sant yàlla bu baax. amiin ci yàlla moo koy déglu mbay bisimilah. ñu ngi doon di nuyuwaat daal ci yëpp di nuyu Ustaz Alioune Sall di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm defal leen ko yéen ñëpp. jërëjëf jërëjëf mbay jërëjëf. léegi tey suñu laaj bi di waaw. suratu Tawba aaya 24. waaw waaw aaya 24. waaw. jërëjëf jërëjëf. waaw ah, ñu ngi bala. jërëjëf Mbodj wutalal ko sax léegi xamal ko. jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax bu baax. jaajëfal ko baax baax El Hadj Mbaye ñu koy ziar di ko ñaanal jam di ñaan njaboot bi ak waa Daaru Tudd yëpp. surtout taw ba aay lan la wax. 24. Mhm, ñu jaajëfal ko bu baax di ko ndokkeel 88 628 98 98. 33 841 22 kenn ngi. Euh, nuyu ko salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, Moussa. waaw Oustaz Alioune. Moussa na nga def. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. yal na yàlla sàmm la. te di la wax ni namoon nañ la tamit. ndeysaan jërëjëf jërëjëf. di leen ñaanal yàgg Oustaz Mbacke sa cousin. waaw moo cousin. <laughs> ak Oustaz Aliou Sall. wallaay ndeysaan notre marabout. waaw ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax. ndeysaan wax nga dëgg. suñu borom yokk seen fan. est-ce que est-ce que est cër yi. ndeysaan ndeysaan yokk xéewal yi bu baax a baax. est-ce ba lépp li ngeen namu ci diine rek. mu mat incha allah. amiin Diallo amiin Diallo ah, jërëjëf rafetlu nañu waxtaan yi lool. jërëjëf Diallo. dalee ci koor geeg lépp. ndeysaan. amul dara loo xam ni raw nañ ci. ndeysaan Diallo jërëjëf. xamul nañ ni. Hmm. liggéey mag ñi daal fi mu toll. Hmm. yéen a ngi koy ñoŋal bu baax a baax. Hmm. ñun de lu bare luñ ciy jàngat. ci liggéeyu mag ñi ci yéen lañ koy jële kon loolu moom boo ko amee ci réew fierté la. lay ndeysaan jërëjëf bu pare tey yaa ko Oustaz ngeen def waxtaan woo xam ne am na taawil yu am solo yoo xam ne man jàngaat naa ko ci. ndeysaan jërëjëf mu jóge ci li Oustaz Alioune Sall daan wax rek. Mhm. ci jeexintalu koor. wallaahi yi muy def yéen ngeen ñëwaat waxtaanaat ci taawil yu am solo yoo xam ni. yàlla mhm. leen suñu borom fay. gis amiin yaa amiin ñaanal ñëpp rek di ñaanal sponsor yi. yàlla yokk seen chiffre d'affaires ba ñu gën a mën a dugg ci émission yi bu baax a baax. amiin jàlla amiin jàlla. jottali nuyoo waa Sànnaar. waa Mbaxana. waa Mbarigo boor boobu yëpp. jërëjëf jàlla. di indi woon rek euh, benn laaj rek. Mm-hmm. ci alxuraan suratu Zuxruf. Mm-hmm. aaya douze ak treize. waaw Zuxruf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbacke Mbacke. jërëjëf Moussa Diallo ñu jaajëfal ko. 12 euh, ak 15. aaya ak 15 ci suratu Zuxruf 88 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. xaaj ma yoro Fall Fall Fall. Oustaz Mbacke Sylla. naa koy na nga def Fall. maa ngi lay ziare de. alhamdulilah jërëjëf. di la baal a wax ci korite gi. yal nañu yàlla boole jégal. ñu teew ko déwén yu bëree bëree Ah, Alioune Mbaye maa ngi lay a di la nuyu yow mm-hmm. maa ngi lay fay Fall. nekk tey di la baal a di la baal a xëy it. yal na yàlla boole baal Fall. ñu dee ñu bëree bëree bëri alal sax ba jàmm rek. waaw ñoo ngi koy wax léegi bi ñu ubbi jàmm rek la. ah li ngeen ubbi nag damaa daa xawoon ma nekk ci sëñ bi. alhamdulilah génn bu ndaw rek dem boori Saint-Louis. incha allah yàlla na dem ci jàmm ñëw ci ñu di ci jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. di leen ziar baax a baax a baax a baax. jërëjëf. Ah, dañ doon daal ndax ah, jaamu yàlla moom koor gi rek lañ ko war a yemal parce que li tax ma laajte nag Mbacke. Hmm. mooy boo dee xool ci koor gi jàkk yi day fees lool waaye suñu tool bu ñu génnee koor gi daal yëf yi day xaw a sooxat lool. Hmm. léegi ma doon laaj ba xam moom ci koor gi lañ ko war a yamale wala déet. d'accord bu dee ci mbokk soxna yi tamit da ngay sol col gu yiwa yiwa yiwa yiwa te bu koor gi jeexee rek ñu bàyyi ko. Hmm. beneen bi mooy euh, ñi nga xam ne dañoo bëgg a woor juróom benn fan yi ndax euh, jàllul wala mën nañ koo woor ba tey. Hmm, d'accord wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf aj Mayoro Fall imaali noppi na. waaw kañ ah. jërëjëf jërëjëf yaa jëfal ko baax Mayoro Fall 88 628 98 98 33 841 22 33 am fi ngeen di jaar pour mën a jàll asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. yaaram na nga tudd fa woote. yow Saaf ñu ngi a siyaar Baye Gana. Baye Gana na nga def. sant bu baax macha allah ñu leen di siyaar di leen. Hmm. Baye Gana dem na Oustaz Mbaye ñu jaajëfalaat ko dafa dagg waaye xam naa dina jéem a ñëwaat waaw ah, dina ñàkk lu ñàkk balaa jeex mu ñëwaat incha allah Baye Gana hmm. waa Kër Massar suñu mbokk yëpp ñu ngi leen di sant Mbaye Ndiaye gis nañ ko dégg lool waaw ah, ndeysaan ah, ndeysaan suñu mbokk yooyu ndeysaan dëkk ci eh, dañ ñu neex lool di yàlla wallaay ndeysaan eh, wallaay kon nag ñu leen di nuyu te leen xaar incha allah allah kenn ñu nii jël ko asalaamaaleykum waaleykum salaam El Hadj El Hadj Aliou Mbaye. waaw kooku. Mouhamed Gueye Wakaam. Mouhamed Gueye. Wakaam. ana ah, bul nangu bul nangu xaaj euh, Mbacke jëkkale ñëw de. Hmm, ah man kay xanaa sax daa mel ne. man kay li ma dégg Mbacke daa daa dalulum xel nee na kenn da koo. gérer non dafa dem Mali. <laughs> waa Mali dañ wari rek moom mu mu mu changé <laughs> man bul fàttali ne Sylla moom daanaka ca Mali la jógee woon ñëw di. <laughs> man foofu suma ma fa delloo daanaka damaa delloo mbattu bi ca Ndaala. Ndaw dëkk bu baax Mali. waaye Gambie dàq na Mali moom euh, bala ngaa kontaan si ñoom rek ñu war a wari. no waa laajoo Oustaz Aliou Mbaye Gambie dàq de. waaw waaw wuu Gambie moom Gambie moom. Gambie Oustaz Mbaye da doon galeeru Gambie da lay mere de. Gambie la doon jaayee poobar. déedéet waaye amoon na jamono yoo xam ne jógee Gambie ñëw. poobar kaani. <laughs> masi day mel ni nga jógee Europe rek. Oustaz Aliou Mbaye xam na li may wax. aywa bisimilah Mouhamed bisimilah. jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal yàlla yal na leen amiin amiin yokk xam-xam bi leeral leeral leeral leeral leeral xam-xam yu baax a baax a baax amiin amiin yaa rabbal aalamiin euh, di di di laaj rek euh, nit naka la naka la waroon dundee après koor gi comme na mu doon dundee ci biir koor gi dafa amoon changement hmm. léegi mooy comme kooku la mujjee wax rek lu ñuy muy laajte hmm. waaw hmm. ndax nit ndax jullit gi war naa changé ndax am na nu muy dundee ci koor yi am leneen nu muy dundee ci budul koor. d'accord jërëjëf di ñaanal Oustaz Alioune Sall fam nekk yal na fa nekk ci jàmm ñu gis ci jàmm. amiin jërëjëf jërë ngeen ngeen jëf. jërëjëf yow it ñoo ngi lay nuyu te di la bëggee <laughs> bay kenn ngi nii jël ko. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Oustaz Mbaye Gana nga ñëwaat. waaw. ah man kay dama ah, moo tax it. heureusement ah, xëy na yàlla dana leen jox réseau bu baax léegi. <laughs> <laughs> <laughs> bisimilah bisimilah euh, dem si si sóosu kaf yi. Ah, waaw sóosu kaf yi waaw. waaw kaf yi euh, ay 10 11 ba 12. kaf yi ay 10 11. 11 ba 12 na waaw noonu la bëgg ñu jëlee rek. incha allah yal nañu ko xam naa ko naa la incha allah. wiir Baye Gana. Ah, mu ni. mu ne mi ngay siyaar dina la woo après. waaw di jërëjëf Baye. merci beaucoup jërëjëf onze ba la waaw dix. dix onze douze moom kay jàpp treize quinze <laughs> jëlal kii. jërëjëf. ko imam. salaamaaleykum. allo Sarr Aliou Mbaye. waa Yaram. Pape ñu ngi lay nuyu la ziar baax a baax. ah Baye Fall dinaa la namm de. namm nañ la trop di ma sow coono yëpp. ustaas jërëjëf Saar. di leen yàlla na yàlla dafa leen barke ci koor gi ñu génn. alhamdulilah Fall jërëjëf yàlla na yàlla nangu suñu koor. amiin amiin amiin. di ko ñaanal ustaas Mbacke ustaas Alioune Sall suñu wasila. amiin yaa rabbal aalamiin. Hmm. di ma sow coono yi yendu coono yi fanaan yeeg. coono yi fajar yeeg yëpp. <laughs> ñu leen di ma sow. est-ce que jërëjëf jërëjëf. yàlla na ko yàlla def seen téere jëf. jërëjëf jërëjëf amiin yaa waa dama bëggoon tey rek nga ñëw ma si alxakumu takaasur. ndeysaan. foofu laa bëggoon nga ñëw ma tey. allahu akbar. jërëjëf jërëjëf oustaz. jërëjëf si Mbacke. Mhm, jaajëfal nañ ko euh, alxaakumu takaasuru lay laaj 10h jot ba teg fukki simili keneen a nga ne di daw di ñëw bu egsi rek ma dalal ko ci 88 628 98 98 mooy waa biir réew mi asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. waaw kay madame Ndour na def. maa ngi sant yàlla bu baax. ana waa STTTC. waa STTTC ñu ngi fi ñu ngi fi jàmm. maa ngi leen di bu baax a baax. ñu ngi lay fay bu baax ñu ngi lay ziyaare. ana monsieur Ndour chaque jour ziyaar ci yow yàgg Oustaz Aliou Mbaye ak Oustaz Alioune Sall. jërëjëf jërëjëf ñu ngi di ziyaare bu baax di leen bëgge. ana ana directeur. directeur mi ngi fi yegg seegul. Ah. la day naaje. waaw day naaje topp ndékki yi rek taxawaalu ba heure bu ko neex. itam directeur ngay waxal da doon ndékki neel neel directeur daa naajee ubbi. day taxawaalu ba <laughs> koy nuyu nuyul ko bu baax. Eh, gis nga directeur sama <laughs> lu ñu neex wax ko. loolu yàlla dogal kon ñun ak yéen a yam ñu nit suñu bos de suñu xarit la. <laughs> moom moom du ndékki waaye dana laal dara daal. gis nga gis nga Oustaz Aliou Mbaye ziyaareel ma ko ne madame Ndour waaw waaw boo wax di yàlla de tawaat ko man lépp xiif dama <laughs> <laughs> yàlla xam na ko de moom daa am koor moom. xam naa keneen keneen ku ko ku ko santaan woon du ma du ma ànd <laughs> doo ànd de ah. pour yàlla. waaw waaw wallaay ndeysaan Ndour Ndour na ngeen def ana ana ana sëñ bi. sëñ ji ah, bi sëñ ji bi waaw koy bëgg baax a baax wallaay tabaarkal la xale yëpp ñu ngi leen di nuyu waaye UTT di leen fay di kontaan ci ñoom di kontaan ci yow itam taxawaay bi rafet na lool wax dëgg yàlla. Ah, ah, jërë jëf jërëjëf jërëjëf. Eh, dañu doon laajte. Hmm. si hmm. moom la ñu bëggoon ñu leeralal ñu nan la ci yàlla wax. jërëjëf Ndour. waaw. aaya 36 37. Hmm. baax na am na solo jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal. waaw bëgg nañ jërëjëf jërëjëf jërëjëf. merci jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax euh, suñu jigéen boobu ma dem nduur di rafetlu dugub bu am solo boobu Umaam Ali te di ko ndokkeel. 88 628 98 98 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw Cheikh Tidiane. waaw Oustaz Mbacke Sylla. jaata jaata. waaw Sylla Sylla waay. jàmm nga am. waaw jàmm alhamdulilah. macha allah. ana Oustaz Aliou mi ngi fi dafa loxoom daa jàpp tuuti waaye mi ngi ñëw léegi. ah, ah Mbaye Mbaye kon Mbaye Mbassou boog Mbaye Mbassou. Mm, waaw mi ngi lay fay. waaw ah, ah, waaw alhamdulilah kay. jërëjëf jërëjëf. waaw waaw daal ak baax a baax waay. yal na yàlla boole baal ñun ñëpp waay. jërëjëf jërëjëf. waaw di di baalu yëpp wax yàlla macha allah. jërëjëf Cheikh Tidiane jërëjëf. ok ok tey rek dañoo amoon benn laaj rek. Euh, waaw ñu ko waxee tëbës wala korite hmm. maanaam julli bi daal nit ñi dañ kaa farataal daal parfois hmm. des fois da nga ah nit ñi nañ na ah non saa yi loolu daal du xamul dañ naan du farata xamul wala wala ñun la waxtu yaatu na voilà très bien moo ngoog jeex na d'accord ok jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf Cheikh Tidiane maa ngi koy jaajëfal te di ko ndokkeel 88 628 98 98 ñanga meng rom nee na buntu bi ñu ubbil waa bitim réew daa mel ne foofa jàppandi wut kon maa ngi leen ciy jéggalu salaamaaleykum waaleykum salaam wa waaw kan la. Alaaji Xaasim Mbay Mbàkke bool. waaw kay sëñ Xaas na nga def mbay waay baa yaa ngi ci jàmm naka waa Mbàkke. sëñ Xaas Mbay génn na allo euh, ñoo ngi koy jégalu bu baax te di ko ndokkeel 88 628 98 98 mooy buntu bi salaamaaleykum. aleykum salaam. bisimilah bisimilah. waaw na ngeen def ak coono jàmm rek kay. yéen a ngi ci jàmm. ñoo ngi ci jàmm alhamdulilah. Ablaye maa ngi woote Diourbel. Ablaye naka waa Diourbel. ça va ñu ngi fi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. jàmm rek kay puy. ana oustaz mu ci jàmm. mi ngi ci jàmm alhamdulilah. oustaz Aliou maa ngi koy nuyu. jërëjëf mi ngi lay fay. ba nga ñëwal ci benn aaya alquran mu nekk ci suuratu xijri. suuratu xijri waaw. alladina yajaluuna maa allahi ilahan axara fa sawfa yaalamuun. Mhm. wa laqad naalamu annaka yadiiqu sadruka mimmaa yaquluun. su mhm. mu yem ci jeexital bi. d' accord. waaw jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñu jaajëfal ko baax Ablaye Puy Jurbel lay wootee 88 628 98 98 euh, 33 841 22 33 foofu ngeen di jaar 10h jot na ba teg fukki simili ak ñeent asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. bisimilah waaleykum salaam. waaw. maa ngi leen di nuyu Oustaz Aliou Mbaye bu baax. man mm. soxna Adja Niass na soxna Adja Niass waa Asalem. waa Asalem ñu ngi di leen ñaanal nañu ko yàlla boole. yow saa su nekk seen émission na solo lool macha allah. ma doon laaj ko. waaw. maanaam suratul arrahman. ah. suratul arrahman. waaw. rahman waaw. Mm-hmm. aaya 46 ba aaya sàmm bi dafa mel ni suñu borom bi ñu ciy wax maanaam melokaanu aljana yi aaya yi daal. aaya lan 46. 46 waaw. ñuy wax melokaan yi daal ma maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax te di ko ndokkeel Oustaz Mbaye ngi ñëw xam naa jubbantiku gee yàgg garaam <laughs> bu bi daa xaw a rëy bu lon koo rek bala nga koo lonkati mu yàgg 88 628 98 98 33 841 22 33 33 841 22 33 mooy waa bitim réew asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ waaw. di siyaar bu baax. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. Alioune Badara Diouf Wakaam. Alioune Badara Diouf naka waa Wakaam. ñu ngi sant bu baax a baax. sama njaati gi la woon. <laughs> dem nga moom man maa xam li tax sëñ bi ma ne la bàyyi naa <laughs> dagg na ñu ngi koy nuyu baax a baax te di ko ndokkeel eh, foofooy bunt bi ngeen di jaaree buntu waa bitim réew bi bu doxut itam bu ñu jaaree ci numéro bi nga xam ne mooy 33 825 18 30 bi ñaare foo ko yëre rek dangay fekku fekk ne ci biir réew mi moo ciy woote te li ñu wax mooy ñu ne ci biir réew mi nañ jaar ci eh, serveur bi eh, moo tax itam ñu far rek di jël serveur bi bàyyi boobu salaamaaleykum. waaleykum waaw kay. man la Pape Seye université bu Saint-Louis. waaw kay si si. waaw kay seen étudiant bi. ñu ngi di ziar di jaajëfal di leen jaajëfal bu baax. jërëjëf jërëjëf. waaw tey daal bëggoon naa oustaz dellu si ma. Uh-huh. allo Pape. oh Pape si université Saint-Louis garçon lay wootee ñu ngi koy nuyu. di nuyu waa université ba yépp te di leen jaajëfal di xaar keneen ci ginnaawam bu ñëwee ñu dalal ko xëy na kii burle wut asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa waaw. maa ngi lay nuyu bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi ziar Oustaz Alioune. Mhm. man nag maa ngi wootee ba Ndar. Ndar ngay wootee naka waa Ndar. waaw waaw. ñoo ngi ziar baax bismillah. da waroon a woote rek ngir rafetlu émission bi. jërëjëf jërëjëf. di ñaan nga tudd moom Tabat Yada. Tabat Yada. noo tudd. maa ngi tudd Moussa Wade. Moussa Wade. Saint-Louis waaw. Wade waaw d'accord jërëjëf nuyu ñu waa Saint-Louis. waaw jërëjëf nii ndeyeen boobu nag sawat mhm, ñu ngi lay fay <laughs> jërëjëf waat Moussa Wade Saint-Louis ñu ngi koy nuyu 88 628 98 98 Oustaz Alioune Sall ñu ngi lay nuyu ma nga foofa ca Saint-Louis jamono ji di ñu déglu Oustaz Al Amin Thiam maa ngi lay nuyu Mouhamadul Amin di la ndokkeel ci ngan gi di nuyu Soxna Sooda juuf ak waa jumaa ji yëpp yal na yàlla àggale lépp ci jàmm te defal la tawféex ngeen yàgg koo taxawee ba ràppal ko yeesalaat ko ay yooni yoon te luñ fa jaamu yàlla yàlla na nangu mbokk mi daa bëgg bokk salaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah. bisimilah ñu yal na yàlla nangu siyaar. ñu ngi lay fay. man de maa foogoon sa aha 77. loolu loolu daal moo tax bi jeexee nga woote ci 33. 33 waaw 825 18 30 ñu jox la ko. 825. 18 30 waaw ñu jox la ko waaw. mi ngoog boo fa wootee euh, ko jot mu jox la ko numéro baa ngi noonu ñu jaajëfal la bu baax jaajëfal ñi ñuy déglu ñëpp ci alkitab di jot na ba teg fukki simili ak juróom-ñett laay mbooj da ndekete affaire bi boo ko séqee gaa yi day oyof waaye boo ci nekkee yow dong de <laughs> du ko tax yomb waaye xam naa mbay a ngi ñëw mm, moom tubarkàlla man gannaaw damay woor di def juróom beneelu fan bi ndékki yi du ma sonal salaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. asalaamaaleykum kàlla waaw. waaw oh, na ngeen def ak sëñ Mbacke. ngi lay fay. maa ngi jërëjëf man man dama bëggoon leerlu ci benn aaya alquran maanaam allahu nuru samawaat. waaw noo tudd. Boubacar Ba la. waaw maa ngi wootee Mbour. waaw koy baax naka waa Mbour. ñëpp a ngi fi. ana Moustapha Sall ndaamal Kajoor xuma ndaamal Saalum ak Mbour. <laughs> allahu nuru samawaati nga bëgg a ñëw. waaw allahumma sama léegi nag dama bëgg ngeen leeral ma hmm. diggante ngeen faram-fàcceel ma diggante allahumma sama te bi kaw kaw buñ dóor yëpp hmm. parce que diggante boobu man jéem na xool fa sonna waaw daa xaw a daa a rumbe dama dama tarde oustaz euh, kii oustaasu euh, ah oustaz Alioune Sall Alioune Sall moo doon faram-fàccee mais dama dama dama tarde ñu rek tombe dama tàppe rek tombe ci fin fin kii d'accord dana ci ñëwaat léegi incha allah fin kii di quoi yaa ngi dégg waaw bu baax te oustaz Alioune Mbaye dama bëgg xam heure yi muy def émission yi muy def reporté maanaam yi muy nettali ci saaba yi ko d' accord kii lay doon 14h ba 15h. 14h ba 15h. waaw bis bu set waaw. léegi léegi. ajuma ji jot bokk. par guddi par guddi yi mu doon def par guddi. léegi du amati ci koor gi bis bu set par guddi gi waaye ajuma ji jot ci guddi gi moo fi nekk. ah. ajuma ji jot ci guddi gi moo fi nekk. moo fi ne ajuma ji ban heure à peu près. 22h30 ba fajar. deux heures ba fajar. vingt deux heures trente. ah. vingt deux heures trente ba fajar. vingt deux ah? heures trente ba fajar. waaw. waaw baax na baax na. jërëjëf Boubacar Ba nuyu ñu waa Mbour soppeb Oustaz Alxaaji Imaam Alioune Mbaye la euh, ñu ngi koy nuyu baax a baax borom Dalifor ak Pikine ak Kër Massar ak ca si Siif ruq bee itam moo ko moom euh, fa la demoon sax xam naa di fa euh, def lam doon def <laughs> waaye dellu si nañ ñu jaajëfal ko baax dalalaat ko jàmm ci studio bi jëlal ko auditeur bi en attendant mu jubbantiku salaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah. kooku Oustaz ñu yàlla nangu siyaar. waaw man la Cheikh Tidiane Kayre sa soppe. Cheikh Tidiane Kayre ñoo ngi lay siyaare Kayre. di jaar ñu ngi lay déglu démb yow Oustaz seen kii bi am na solo trop macha allah. jërëjëf jërëjëf. waaw Oustaz moom vraiment dañ ko waroon jox mu defar benn livre boo xam ne pour code spécial pour code de la route kese la. ndeysaan. ndax démb wax dëgg yàlla jàngatam ci code de la route ñoom dama daan. ndeysaan ndeysaan. dëgg yàlla am na solo yéen moom ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax walaay suñu borom jëmale leen kanam bu baax a baax a baax. jërëjëf yal na yàlla jox leen sax seen rajo bopp boo xam ne ni yéen a koy moomal seen bopp. amiin amiin yaa rabbal alamin. waaye yàlla ko suñu borom def mën na ko. waaw man daal dama bëggoon oustaz Seye ñëwal ma ci allahu nuuru samawaati. kon Boubacar Ba moom la laaj yéen ko bokk kon. waaw ñu bokk kon bokk. jërëjëf allahu nuuru samawaati oustaz Mbaye moom la mbokk moomu laaj. ok Alioune Mbaye nag moom jooyloo na si kóor gi jooyu métti ndeysaan. ndeysaan ñu ngi koy ñu ngi koy jégalu de. ndeysaan li muy jooy noonu ndeysaan. ndeysaan moom koy moom jooy na ba sonn. waaw laaj bi jooy man tam maa ngi jooy tam di jooy. nee naa ko ay li nga jooy ren. <laughs> <laughs> Mbacke nee na bu nawet bu nawet bi tawul. waaw moom kay li li ñu waroon a taw xaaj bi taw nga ko. <laughs> loolu dong jar a jooy nag li mu jooy. waaw noonu la de. macha allah allah jërëjëf jërëjëf Kéré. jërëjëf am la morom jërëjëf Ibrahima la xam nga père Birahim daa dugg ne Nicolas euh, da nga may tàcculoo daal xam nga Nicolas day xëy rek naan tàccu leen tàccu leen <laughs> père Birahim ne na mujj gi sax mu yaakaar ne tàccu yi lu ñu war a def la tàccu ba sonn waaye après mu ne man lan laay tàccu <laughs> day waar de. kenn mësu ko gis. booy indi ko dafa léej. indi ah, ko laa kay. dafa léej moo moo xam naa il faut nga di leen di contrôler. tubaarkàlla ah man mii. waaw yow Maodo yaa mën ci moom dara. ah waaw waaye ni ko de moom fu ma ko mën ci moom dara moom. ni ko ni ko jëlal kii. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Tukulóor. waaw kay Oustaz. ah Tukulóor na na meef na la di. ah dégg nga raw naa leen de moom xaw ma la wax. ma ne na mën nañ la. waaw kon wax naa ko raw naa leen bu yàgg. waa kay jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jàmm ja. baal leen naq waaye ngeen dégg mbaa yaa ngi am jàmm. baal nañ la bu baax a baax waaw. bisimilah bisimilah. am na ku yàq sa der ne da ngaa def yoon ci film de. di eh, ah, moom kay moom ah, ah, Mbacke de moom léegi de. léegi léegi yow tukulóor di nga posé question bi baaxul am na ku yàq sa der. da nga ko daan kay am na ko wax ne. dangaa def woon kifin bu joxee lay woo xam ne dëppoo a ak wax mu door a tudd yàq der waaw waaw kon classé na question boobu ni nga ko dugalee baaxut indil sa laaj bi ngay laaj te coupé jën na la waaw baax na mm. waaw damaa xam ne yow yow mi nekk ak moom loo wax ñu ne duñ koy mm. ah, loolu laa xalaatee. maa ngi leen maa ngi leen jërëjëf a rentré. nga génn saako yi. Ah, génne naa la saako yi yaa ngi ci gannaaw demal ardu ci ñëw. <laughs> d' accord léegi euh, maa ngi leen di gërëm bu baax tey dafa la jot a wax dëgg yàlla. di leen baalu ak bu baax a baax di baalu képp koo xam na mu ngi leen di bàyyi xel. te ñàkk leen bàyyi xel sax dafa wóorul wax dëgg yàlla. waaw di gën di ñaanal nag sponsor yi jàpp ci jotaay bi bu baax a baax a baax. dama amoon laaj bi ma bëggoon ñëw mais dafa mel ni ñaan fi ma ko tibbee tiim nag boobu ba léegi ñaar ñëpp ci la bu fekkee bi ma laaj lañ bëggoon nag mooy allahu nuuru samawaati di nekk ni sóoratul nuur mhm. kon man ma dem ci beneen parce que boobu moom ñaar laaj nañ ko te boobu laa soxla woon léegi kon ma dem ci sóoratul anaam mhm. mooy ay quatre-vingt-onze ay quatre-vingt-onze al quatre-vingt-onze mhm. waaw maa ngi commencé soo maa qadrullahu xaqa qadrihi maa ngi leen di gërëm bu baax te rafetlu jotaay bi te di leen ñaan yàlla bu baax a baax d' accord jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. Imali. jaajëfal ku baax jaajëfal ku baax suñu mbokku mbaax mu lee Bachirou Ba di Tukulóoru Baay 88 628 98 98 33 841 22 33 incha allah ci ngeen mën a jaar di nuyu docteur Aïda Thiam sunu xarit yooyu la tubaarkallaahu ñu ngi leen di nuyu baax a baax di nuyu tous les docteurs ak docteuses am déet. waaw ah <laughs> man maa ngi tëj sama micro seereel lool rek. docteur ak docteuse lay mbàgg yaa bari xam-xam maa ngi door dégg tey nag <laughs> ku ko wax jëlal kii docteuse <laughs> yaa ma ko wax man boo ma ko laajoon ci anglais laa la koy wax wala boog ci espagnol <laughs> docteur docteur neurologie. boo ci jàpp yow. <laughs> jëlal kii. Ousmane Ndiaye ah moo gën de moo gën de. ah seexu naa seexu naa nee na ma wax ko ci làngooy lu kajoor kajoor. <laughs> ah ñu ngi xam naa moom da ko jokk lool moom. ah defe naa ko de eh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. jërëjëf di leen nekkale ci weeru tedd yi. ndeysaan di leen ci baal wax baax di leen baal. ndeysaan di leen suñu borom borom ñu jégal. jërëjëf jaajëfalaat bu baax ci ni ngeen doon ni ngeen ko doon taxawee. jërëjëf jërëjëf ci dundin mu solo yi. jërëjëf yàkkamti koor gi ndax waa Sud FM. jërëjëf jërëjëf yàlla leen a taxawoo di saare Oustaz na lépp. jërëjëf sëñ fondement bi mooy éducation. éducation bu baax ci doomu aadama moom bu ko defee rek daanaka mën naa mucc ci yu bari Mm-hmm. ndax damay déglu sëñ Bass Abdou Khadir mu ngi nekk ci sëñ Abdou Khadir Jaylaan yi di wax ne yi mm-hmm. way juróomu góor génnee àdduna waaw ba way juróomu jigéen waajal ko ko daara ja mu jàngi ah. dañ ko booleeg ñu ko doon yóbbu bi ñu demee ba ci yoon am ay agresseurs leen kat yi leen agressé ginnaaw moom moo ci doon nekk gone ñu foog ne yoru dara biñ leen euh, laajee ñu ne yoruñu dara moom ñu laaj ko ne ko li nga yor mu naa ñetti dërëm mu ne ko génneel mu génne ko agresseur mu ne ko yow lan moo tax ma laaj la rek nga génne xaalis bi mu ko sama yaay dana ma woon bul fenn lu mën di xew rek luñ la wax na nga wax dëgg. loolu nag tuuti ko tuuti ko mu delloowaat ko xale si bàyyi leen nga xam ne ñooñu leen foofu lañ jaaree bàyyi bàyyi agressé di adugal ba. Mhm. nga xam ne kon ak dëgg dafa am solo ci doomu aadama. kon irrigation bi faaw ñu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ni nga leen wax nag ci réew mi ni muy doxee ak kilifa yi am na solo loolu yàlla nañ leen dégg. Hmm. di wax ne nag comme Mbacke maa ngi doon seetaan moog Oustaz Alioune Sall benn kii ci ci bi. Hmm. di ko wax ne euh, Euh, suñu borom mos koy yónnee koo xam ne day ñëw ñëpp ak moom hmm. amul hmm. yónnee bu ñu a ñëw ñëpp ne la yow la hmm. amul benn nitu yàlla bu fi da ngeen fay nekk wàllu xolama war a sori am biow ñëpp mënu leen wax yéen la waaye nag bàyyi leen seen waar ci tool bi waaw faaw nag am ñu saani xel mais nag mënu ta ñàkk ndax suñu borom moo bindee doomu aadama yi noonu mais jàpp leen ne nag moom euh, bu ngeen waxee dana am ñu leen dana am ñu dégg seen wax jëfee ko te loolu rek moo ci am solo bëri na ñu ngeen ginn te ñoom xam nañ ko kon nag yal na leen suñu borom gën a taxaw gën leen a sàmm ñu ngi leen di jaajëfalaat baax di siyaar Oustaz Mbaye am na solo lool di wax ne loolu lañ indi woon tey yàlla nañ suñu borom defal tawfa ak tayseer waa kon daan gi yëpp ñu ngi leen di nuyu nag di leen bàyyi xel jërëjëf jërëjëf seexu na am na solo seex na si la jërëjëf amati na solo waaw ah, solo jërëjëf ñu mm. am jom nga fa boo taxawee ci rond point bi rek xool jeunes yi xool xale yi nga xam ne bëgg nañoo tekki xam nga dégg loolu gars yi di faral di wax naan xaw ma du ay fo waaw eh, xam nga sant si la du ay fo. moom du ay fo de. foo nga jëm dëgg. léegi. nga jëm si. ñu nag téere bi <laughs> ak sell ak eh, silatu rahim ak yëpp daa delloo suñu sant wa rek. silatu rahim ah, ak yaa ngi yaa ngi créé ay mots ci biir. déedéet créé dafa fee nekk daal ma di ko génne. nu fi nekkee. jëlal kii Seydou Rahim Guèye ah, saay kii dem na <laughs> waaw doy na waar xam naa ñu ngi ci cat li sax ñaari minute tey ñu àgg ci ñaari minute moo tey ñu des incha allah waaw bi ngay làkk anglais ak français yi sama xel daa dem ci ka Oustaz Alioune Sall doon nettali waaw nen daa ñëw daal jàng tuuti arab dégg arab nag ñu di ko déglu nag lu ñëw rek ñu laaj kon lii nuñ koy waxee ci arab bu dee xar mu ne leen xaratun <laughs> bu dee nag ko nag moom nuñ koy waxee ci arab mu ne leen nagatun <laughs> <laughs> waaw moom daal lépp rek ak tun la ciy teg ci cat la rek. <laughs> mu nekk arab jëlal kii. <laughs> aw marbut taw tànn. jeex na. asalaamaaleykum wa rahmatulah. yaaram. allo allo. waaw ah, fii la de maa la ko dugalalul jël ko. asalaamaaleykum. allo. Ah. salaamaaleykum. daa dugg waaye yëgul ne dugg na yëgul ne na loolu nag cat lay doon jëlal kii ajaa ngi sale ñang ñu ngi lay nuyu baax ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy fay jël ko asalaamaaleykum waaleykum salaam waa yaram ah, Oustaz Alioune ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay Modou Mamour la Italie ah Modou Mamour waaw maa ngi leen nuyu de leen siyaar Mbacke ngi lay sëñ Modou Mamour euh, Babene waaye si benn tuut benn <laughs> waaw baax na jot leen nag jafe na ci beneen numéro mais bi ngeen ko waxee sànq moo tax ñu jël ko waaw waaw baax na pour ngeen koy fàttali beneen bunt bi nit ñi mën a jaar waaw mais xam nga bunt bi fi mu ne waa réew mi dañ ciy jaar moo tax buñ ko fàttalee ñu bare bare bari ci la jaar waaye baax na xay na dañ leen ko mas a bàyyee wax nga wax nga dëgg ñu ngi leen di siyaare bu wér tey rafet jotaay bi jërëjëf waaw tey siyaare suñ papa Oustaz Alioune Sall ndax génn waaye yàqu ci dara lépp rafet na alhamdulilah danaan sant nañ ko bu wér ndax bu génnee day mel ni génnul malgré dina wéetal jotaay bi sax ndax moom lu mu lu ne mu gën a neex waaye nag ñu ngi koy ñaanal bu wér te di leen ñaanal yéen tam lépp rafet na Mm-hmm. amiin di leen baalu àq te di leen baalu àq. ci koor gi tey baalu képp kuy lay baal baax jërëjëf jërëjëf. waaw baax na léegi dañoo bëggoon rek nga leeral ñu ci àq uh, dëkkandoo. Mm-hmm. maanaam waree fii ci nekk yëpp. Mm-hmm. pour nit ñi mën kaa gën a bàyyi xel ñu gën a sàmmante war may ci dëkkandoo yi ak ki nga xam. bi ci topp itam maanaam nettali xuloo sax du xuloo waaye lu weesu woon ci weeru koor waxee nga dënn. <laughs> waaye ma lay ñaan rek di kàttanu yàlla bul di doon ndax boo jiitoo rek am ñu la xool mhm. te Oustaz Alioune Sall moom lu waaye mën di wax ci moom lu dul lu rafet ak jëf ju baax mhm. xamal ni sa jikkoy bopp ngay wax waaye waxoo jikkoom ñëpp ak ko rafet loolu barke borom Touba maa ngi nuyu képp ku may dégg nag sax xam ndax bari na sama xarit nekk fii leen déglu Basiiru Naar ak waa Ndakaaru ndax maa ngi woon foofu riifalëri ci pàkk karo bi mhm. ndax man bi ba rajo bi nekk laay déglu oustaz Alioune Sall kon loolu yàgg na. jërëjëf moo Mamoun kon bi mu ñëwee barki dem bi yaa rek am na ko gis ne ko maa ngi lay nuyu ndax ki ma dëkkal yaay oustazam wax dëgg yàlla. ndeysaan <laughs> ndeysaan jërëjëf. yàlla na leen yàlla fay Mbacke nag yow naa sa numéro yenn saa yi dama lay woo mu xaw a jafe te damaa am yow lu bari. sax waaw waaye ko ba ma woo mu jafe wala ci antenne bi. waaw am naa sa numéro mais laa lay woo. yenn saa yi ma yónnee ma message ci whatsapp bi message boo bind tam gàtt <laughs> waaw incha allah léegi nga yow ñoo far. bindu ko rek neel man la sama mbokk sama mbokk Jurbel waa nga ndax maa ngi dëkk kër yéeli. ah kër yéeli nga dëkk. <laughs> waa kër yéeli laa dëkk waaye ba may xale laa ko jógee. dëkk nga dëkk bu néew ay changement yu ñu fa def. Mm, oh, soixante-dix-huit ba léegi defuñ fa lu bees. mbàkke mbàkke tabax ya ràpp na te li ya toj na amuñu ay njiit yu ñu dimbali moom daal ma nga noona rek yàlla ñu yàlla yërëm moom daal Mbàkke yàlla nañu yàlla yërëm waaye boo hmm. bëggee dégg-dégg suñ gouvernement bi daal Ndakaaru lañ def muy dëkk mais daal yow boo fa juddoo bi de maanaam kili du gouvernement bi kilifa ya dëkk ca dëkk bala la tey politique loolu du gouvernement maanaam ñoom ci boppam ñoo bëggul Jurbel joru leen loolu la <laughs> jërëjëf dinaa la waxal leen am na sànq lu Oustaz doon wax ci Omar ak bu mu jiitee hmm. gis nga dëkk bii ma nekk maire bi nga xamante nii moo yor dëkk bi hmm. wallaahil azim day ñëw léegi taxaw ak yow waxtaan ak yow ngeen dugg baar naan kafe wala ngeen bokk ci négoce bi oyof lool boo ko gisee bu ñu la nee kii la doo ko gëm. Modou Mamoun jërëjëf. billaahi sant nañ leen gërëm nañ leen oustaz ñëw na Italie xam na li fi ne waaye lépp lu leen wax rek xam leen ni dëgg ping la leen wax te noonu la réew mi doxee. wallaahil azim jërëjëf Mamoun jërëjëf Amar. billaahi jërëjëf oustaz dinaa la woo bu neexee yàlla. incha allah imaam li mi ngoog. yàlla na yàlla defar seen mbir defar suñuy mbir te def suñuy bopp dara moom kay mi ngoog yam ñu teg foofu suñu baaram mhm. ñaan ñi nekkoon ci serveur bi incha allah te ñu jéem a jox la kàddu gi incha allah mhm, jërëjëf kon Oustaz mbay ñu jaajëfal la daal dem nag jëli suñu partenaire yi te ñëw incha allah eh, door a ñëw nag ci tontum naaj incha allah eh, jërëjëf oustaz Mbacke la technicien alim ñu ngi koy sant baax te di ko gërëm di ko ñaanal jàmm su ko defee xam naa suñu Mbacke ñu jéem a ñëw rek ci gàttalu sënk gi incha allah balaa ñuy ñëw ci euh, yeneen yi ci daju jërëjëf Oustaz xanaa jaajëfal bu baax suñu partenaires yi nga xam ne ñoom lañ àndal. Hmm. Lobbu Gaz euh, Madar euh, waa Fari Industrie ak seen karo Kër Xaadim. waaw ñu jëlee leen baax a baax a baax. Hmm. Hmm. bëri leen kenn te yal na yàlla defar seen chiffre d'affaires. amiin mu yokkoo yokkoo bu ci kenn réccu dara. amiin yal na kër ga yokku travailleur yokku directeur ba yokku ñëpp yokk macha allah dafa mel ne Oustaz Alioune Sall ci biir imam xam naa damay daal di bàyyi rek nga dalal ko ñu daal di wéyal laaj وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج كيف حالك؟ آه أنا بخير الحمد لله الحمد لله وصلتم بإذن الله الحمد لله شكرا الحمد لله kon nag yaakaar naa ni yaa ngi ci bët bët Saalum bët Siin bëj gànnaar waaw bëj gànnaar sëñ Mbacke maa ngi bëj gànnaar waaw yaa ngi bëj gànnaar foofu ci ci ci Ndar allo allo waaw. yaa ngi ci da ngeen am benn programme bu bu ñu ubbi jumaa waaw alhamdulilah dafa am jenn juma ju daan ñëw fii di conférence ci buntu juma ji. Mhm. di ko laajal ak def yëpp ba yàlla def nag léegi ñu bëgg ko ñu gën a tey. ndeysaan. ñu ne woon daal sama teewaay ci moom daanaka farata la ci. ndeysaan. moo tax ma daal di welli ko ndànk rek daal ci ñëw di jégalu auditeurs yeeg yéen ñëpp rek macha allah. Mhm. Euh, fii ak xëy na trente minutes danañu génn dem ca ba dem waxtaan ba midi ba treize heures. bu mhm. ko defee ilimaan ñëw dalal ay ganam daal def xutbaam. daal di julli daal di jaxal programme bi incha allah. macha allah am na solo am na solo yal na yàlla yal ci tawfiq. allahumma amin amin amin. jàppale la. amiin ñu doon topp nag macha allah jotaay bi am na solo lool. ah ah mbaa jub na ko tàmbalee bu ngeen ko daaneel macha allah lépp jaar nañ si woon. jërëjëf Sall. yàlla na yàlla yokk tawfiix. amiin amiin amiin amiin. alhamdulilah. am na yëpp liggéey la. yëpp la la la rek yàlla nga ci gën a kerlu. amiin amiin. ndeysaan nga ci gën a kerlu. Ndar ak ngeen ci jàmm. waaw sëñ Mbacke ak seneen ci jàmm macha allah fekk jàmm macha allah ñëpp la nuyu ak di la laajte jërëjëf ñoo ngi fay ñëpp wallaay ndeysaan ñu ngi fii ci sawar macha allah jërëjëf ci dugg dëkk bi rek macha allah waaw jumaa jooju de ni ko waxee moom xam na ñëw ci ubbi gi moom du doon jumaa joo miinut ndax bañ ko fondement ba léegi defe naa at mu jot da nga toog ci bunt bi dajalel ko ay yëf yoo xam ne moom lañ ciy def mu ngoog mu ngoog mu ngoog waaw bëri waay mooy jumaa jooju nag nekk di ko bëgg a julli tey bu allah yal na yàlla barkeel ko amin ñu bokk amin ñu bokk te sàmm leen bu baax baax dem ak dellu si ñoo ngi nuyu soxna Sooda Diouf ak euh, imaam ak euh, sëñ Lamine ak waa koñ bi yëpp. ñëpp ak lay fay macha allah. jumaa ji fan la nekk ci ndar ah, ndax am na ñu lay dégg ñu xamante ne danañ foo bëgg ñëw wala dara. Mhm. fan la nekk ci ndar waaw mi ngi fi ñuy Soor. Soor. booy dugg dëkk bi ci juutu bi. Mhm. foofu arrêté ah, fi kaar yi taxaw rek boo taxawee daal seen jumaa ji. Mhm. wala nga see nga dégg euh, rajo yi di xuraan noonu. koñ ci soor la nekk bu fekkee da ngaa nekk biir ndar booy génn ndar la à kon kon kon soreewut ak garage bi. déedéet ñu ci gannaaw garage bi rek la ñoo ñoo laag ñoom ñaar. waaw maa mii ndar nag. <laughs> man teemaa taxu si ndar waay. <laughs> ëpp naa def ëpp naa ah. toogal toogal Mali ba toogal Mali ba ci rek. non Mali dama faa jaaroon du bi ma ko laa ñëw. <laughs> ndeysaan oustaz Mbaye kon ñu daal di ci li ci topp <laughs> jërëjëf mm-hmm. eh, xam naa kon ci benn minute bi ñuy dese nga ñu dugal ci laaj bi waaw ana danaa ñëwaat incha allah mm-hmm. incha eh, ginnaaw suñu mbokk mu baax ma la alaaji Mbaye di sa dëkkandoo fële ci daaru cubb moom mooy laaj ci taw tawba ay mm-hmm. ay vingt quatre waaw tolloog Mbàkke fii suñu borom di waxe qaatiluhum yuazibhum llah bi aydikum wa yuxzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin muminin sadaqallahu al-aziim jërëjëf ci laaj bi bismillahi rahmaani rahiim subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim xam naa bu ngeen déggee suurtu tawba mooy saar wi amul bismillahi rahmaani rahiim comme amul bismillahi rahmaani rahiim da ngay daal di xam ne kon léegi saar wi moom a jàkkaarloo rek. Hmm. waaw sunu borom wax foofu nag daal ne xeex leen ak gaa yi. Hmm. c'est-à-dire ñeme leen. Hmm. su ngeen ñemee xeex ak ñoom maa ci seen ginnaaw ànd ak yéen. te itam maa leen di supporté maa jàppale. kon nag xeex leen ak ñoom. Euh, dana tax pénc mi jag. sunu borom loolu lay wax nga xam moom nga jàng léegi ci tënk bu gàtt nee nga benn bi moo jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf alhamdulilah xam naa kon mbaa comme comme. waaw kaa jot na. Mm-hmm. kon sax ñu ñu teg baaram foofu incha allah. ñu ngi leen di xaar waaw ñu ngi lay xaar incha allah bu ñoppee ci publicité yi rek euh, danañ ñëw àggale li nga xam ne mooy laaj yi incha allah. incha allah incha euh, xanaa xanaa ndar de tàngut lool sax moom. waaw fi ne di tàngut wax dëgg yàlla. Ah, waaw tubarkalla. seedul guy de waaye tàngul jëriñ. seet ana ndékki yooya. <laughs> waaw moom daanaka mi ngi nii de. moom daal yéen yi daal nekk yëpp nekk na ci de ba am yeneen ci nekk te sax yu daawul nekk. waaw tubaarkàlla. <laughs> jërëjëf Oustaz Touba Mbacké mu ngi ci benn wàll wi. waaw kay jërëjëf kon ñu dem tamit man Assane dégg ko daal ñu fi a fekk. <laughs> kon baax na bàyyil noonu kon ba kanam. ay ca Imaam jërëjëf jërëjëf Oustaz kon nag Mbacké la ñuy bàyyi nga dem incha allah. dem ci publicité bi soobee suñu borom bu jeexee ñu ñëwaat ci bu fekkee xaj na fi ñu ñëwaat bu xëyul ñu bàyyi ba Alioune Diarra ak Malick Ndiaye pare. ñu door a kii ñu door a ñëwaat Oustaz incha allah. incha allah ñu dem te ñëw kon merci. ok ok. thank you.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 Eh, sëñ eh, kii Jili Mbay waaw xaj Jili waaw xaj Jili xaj Jili eh, ma doon docteur jàkka yi ndeysaan yoroon taraanga ju bari ndeysaan woon ko tam lislaam yéene ko yàlla ndeysaan oustaz it am xam-xam ndeysaan yàlla yéene ko jaami yàlla yi mhm. ba tey ñu koy sollicité partout. Mhm. mooy xat na waaye. ndeysaan eh, mi ngi koy jéem a xat-xatal. jërëjëf yal na yàlla gën ko ci sàmm. amiin te taxawu ko ci bu baax a baax. amiin amiin yaa rabbal aalamiin loolu amatina solo Oustaz Mbaye ñu jaajëfal la ci bu baax itam xam naa ne diggante bi dem ba Ndar dellu si waat. ne ci xibaar yi dana xaw a ci ñeenti minutes. <laughs> ah dana xaw a dana xaw a xat tuuti. dana xaw a xat waaye xam nga bi Oustaz di tontu léegi <clears throat> ak laaj bu am solo bi nga xam ne moom la mbokk mi laaj. ak hmm. yitte yi nga xam ne moom la ñuy def di ànd ak ñun ci jotaay bi day hmm. effort yu rëy Oustaz yoo xamante ne jàngale da cee am mhm. ndax léeg bari na kuy laaj koo xam ne li muy laaj boo déggee mu wax ko da xam ne am na lu mu ci jot a mos mhm. waaye bu ko tegee rek nga xam ne ak fàttali da ciy am te bu ko oustaz firee ba noppi même yow mi jël laaj bi jox ko sax da ngay yëg ne am nga loo ci jàngi dëgg la mhm. euh, borom xam-xam bu laajee bokkul ak kii xamul mu euh, ngi mel ni ni ngay jëflanteeg oustaz ci xeeti laajin wi ni nga ko koy tegale boo gisee oustaz di ñu jox exemple léeg ci euh, pëlëy ak Garincha. yaakaar naa Garincha la tudd. waaw noonu la koy waxee de Garincha. Garincha man nag booba ñëwaguma. <laughs> booba xeewagoo booba ñëwaguma. nee na pële. Mm. Mm. Garincha nga tax a siiw. ndeysaan waaye kenn duggul Garincha. waaw dégg naa moo ko daan centré. moo ko daan centré bal yi moom mm. fu bal bi lu ci ci ci train bi la ko daan teg. comme ni ngay centré nii. <laughs> comme Oustaz nee na yaay ailier bi moom. comme ni ngay centré. waaw ngay droite ngay lay gauche. ndeysaan mooy wax dëgg yàlla muy muy muy neuf bu man ba man man man biir wax dëgg yàlla. ndeysaan di di dugal. ndeysaan te loolu Mbacke c'est important. Mm-hmm. waxin. Mm-hmm. dana yàq déggin. waaw ah, mais xam nga yéen da ngeen moderne daal parce que bu njëkk itam waaraate di ko mm-hmm. misaal ci loolu ay centre ay yu kenn xamut. Eh. Eh, eh, xam naa message bi daan na jàll waaye ngir nit dégg aw waaraate daan def ay effort yu bari. Mm-hmm. ngir comprendre li waa ji bëgg wax. ba tax sax kii waaraate mag la daan doon fi mu ne bu nit di waaraate ñu ne maanaam dañ lay jox at yoo amut comme yow fi mu ne am na ñoo xam ne ñu la jàppee paa bu dem ba ñëw. te man xam naa ne yàggoo fi lool Oustaz ah. Alioune Sall noonu. <coughs> waaye loolu li ko waral mooy dañ ko defoon mu yëfi mag ndaw bokku ci yéen nag feeñal ngeen message bi ba nga xam ne kii déglu day daal déglu rek xam ci lu bare baree bari daal di mën a bokk xam naa nag ma ko fàttali euh, bu ñu jo bu ñu jotaatee oustaz waaw imam Dukri waaw euh, RTS la nekk di borom xam-xam nit ku baax dëkk fële ca Malikounda Malikounda Bambara mm-hmm. muy sunu mbokk mu baax mm-hmm. démb waxtaan nañ lu xaw a gudd mm-hmm. ci téléphone waaw may wax Pastef ak xeetu joxe li ñu xam-xam. ni oustaz di joxe. dëgg la moom borom xam-xam la jàngi na fu ne. waaw ni nee na ni oustaz di joxe. Hmm. communication. Hmm. nit mën na raw oustaz de xëy na. Hmm. waaye oustaz wax ci xam-xam dégg-dégg boo xam ne nii. Euh, kenn du ko ci xam. Mhm, am na solo loolu c'est important. tubarkàlla kon ñu jaajëfal la daal di bàyyi waa rédaction bi. Euh, ñu ñëw ñun ci xibaar yi bitim réew mi incha allah buñ noppee daal di ñëw nag àggale laaj yi auditeurs yi. incha allah merci. jërëjëf Ima Ali ok. <laughs> ngeen jëf mbokk yi jërë ngay jëf ci déglu bi ñu jaajëfal bu baax euh, Ndeye Marème Ndiaye ci tënku xabaar yu gàtt yooyu la ci français jërëjëfal Hadj Malick Maodo rek en chef ci xabaar yi ci wolof ci bitim réew yooyu ñu jaajëfal leen baax xaar leen 12h incha allah dina gën a yaatu ci Hadj Malick Ndiaye 13h Hadj Malick Maodo dinañu gën ko yaatal yëpp dañ ci dañ ko indee revue de presse bu soobee suñu borom ak guñ foofu incha allah léegi li des mooy ñu jéem a. dem Ndar dem Saint-Louis. <laughs> dem Saint-Louis Ndar ak saint benn la. Ah. benn la fa la bi ñu ko na nekk. Eh, dégg naa da ngaa mm, waaw ndar eh, dëkk bu neex xam nga jël mbaam. <laughs> jëlal oustaz mi ngi ci biir. <laughs> jël mbaam jëlal ma firil la ko waaye comme mi ngi fi. <laughs> alekum waaleykum salaam wa rahmatullah. yaa yaa oustaz. a ngi noppal ban heure waaw fi nekk man rek la xaar. ah kon nag du bon bàkk booy bon gaawoon. aywa kon rëpp la ñu daal di. <laughs> mëmbësal laaj yi ak moom. waaw ah, ñu mëmbësal laaj yi. <laughs> ayca ku ci topp mooy musaa Diallo Sall. waaw Moussa Diallo mooy suñu mbàkk. Mhm. lu mu wax. Eh, moom nee na surtout suxuruf. suxuruf waaw ay douze ba quinze. Euh, suratu suxuruf ay douze ba quinze foofu la musaa jàlloo dem Oustaz. Euh, suxuruf euh, Oustaz Mbaye. Euh, <laughs> suxuruf waaw waaw aaya douze ba quinze ci suuratu suxuruf du sori fa suñ borom subhaanahu wa taala di waxee Oustaz. subhaanallati waa aaya ji subhaanallati nekk la de waaw koy li tastawu ala suhurihim zumma tadkuru nixmata rabbikum isa stawaytu isa stawaytum alayhi wa taqulu subhaanallati saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munxalibun Oustaz jërëjëf ci laaj bu am solo bi. Euh, sunu borom moom nu jàngal bu nu waree loo xam ne mënoon na war te nun noo ko war ñu delloo borom njukkal moom mi nga xam ne mooy def lu nuy waree ci kenn du nu war. Mm-hmm. boo waree ci gileem wala nga war ci nag wala nga war ci fas mbaam mbaam mbaa yoon mbaa oto nga bàkk ko moom sunu borom ne subhaana li la na haada. ci nga xam ne moo ñu tàggatal lii bañ war ko te moom duñu war. Mm-hmm. wa maa kunaa lahu muqrinin bu doon nun dong doon ko tàggat ba di ko war. Hmm. ndax Moussa ñu dëkk ci kër gi kenn du leen war. xajaa ñu kër gi kenn du leen war. Hmm. maam ëpp leen doole foofu fas ëpp leen doole foofu ñu di leen war. Hmm. kon subhaana li saxar lana haada gàcce nga laa maag ci ñu tàggatal lii bañ koy war te ñun duñu war. est-ce que ci laaj ba am solo moo ñu bu ñu waree ci wala ci fas. ndeysaan macha allah. waa jërëjëf jërëjëf oustaz sëñ Mbacke yaakaar naa ne ki ci topp mooy Mayoro Fall. Oustaz euh, Mayoro Fall mooy topp mu ne ginnaaw bu ñu wooree ba koor gi jeex nag lan mooy li ñu war ak jeexalitu koor lan la. ah. mu ni euh, Mayoro Fall. waaw. mu ni day laajte lan mooy wareefu ginnaaw bu ñu wooree ba pare lan mooy lan moo ñu war. li ñu war mooy bu koor gi dem bàyyi ñoo ak taqwa. Mhm. taqwa bi ñu ci doon bu fekkee am nañ ko ci. Mhm. bu ñu waree ñu lekk alal jàmbur. Mhm. bu ñu waree dootuñu sàggane weer wi. Mhm. bu ñu waree dootuñu intermédiaire kenn. Mhm. bu ñu waree dootuñu nay. bu ñu waree dootuñu yee fitna. bu ñu waree dootuñu dootuñu ragal. bu ñu waree bu ñu aji màkk yàlla doo ngay tax te dañ koy def ba mu sëkk. juróom ñett ci sama yoo xam bu ñu waree ba noppi loolee te lépp ñu ngi koy am ci biir taqwa. est-ce que est-ce ci laaj ba am solo bi. jërëjëf sëñ euh, Mbacke yàgg naa Baye Gana moo ci topp euh, Baye Gana Mbacke euh, oustaz. dafa dafay laaj surtout kaaf yi moom itam. li dalee ci un ba onze xam naa daanaka xawtu ma xaw a doonub tafsir. <laughs> alhamdulilahi allazi anzala ala abdihi alkitab walam yajalhu iwajan qayiman baasan shadidan ba ci onze. lu am solo mooy bi mu koy tàmbali def ni ñun ñi nga wala képp koo xam ne mën ngaa ubbi kaamil di jàng war ngay sant sa borom ndax téere boo xam ne bi amul jàdd jàdd te comme jàpp dana mu yàgg doo am jàdd jàdd mm-hmm. téere boobu ku yàlla def bu ñu jukki jukki jox la ci war nga koo sant moo tax mu tàmbale ko daax alam leen si anzala kitaab wala nga àllahu iwaja hmm. amul ci benn jadd-jadd bu ci nekk hmm. moo tax ñun si duñu xam ne ajjuma jot neen ko jàng hmm. kon jullit bu ne war naa fexe ba fer ji bu bu ajjuma jotee mën te tàmbali ba ci laaj ba am solo bi jërëjëf tabarakallah euh, ba tey Mouhamed Gueye moo topp Mbacke Mouhamed Gueye mu ngi woote fële ci Wakaam moom itam laaj bi euh, Mayoro laaj dafa xaw a moom mooy maanaam ginnaaw Ramadan nag naka lañu mën a dunde ginnaaw Ramadan li ma dunde kon mooy li ma tontoon mbokk mi léegi rek mooy am taqwa taqwa jural ñu ñu mën a bàyyi juróom-ñett yi moo koon sànq. Hmm. jërëjëf. jërëjëf ki ci topp mooy euh, Pape Sarr Baye Fall. Euh, Oustaz Pape Sarr Baye Fall moom dafay laaj te alhaakumu takaasu euh, nga ñëwal ko ci. jërëjëf suñu borom daal. Hmm. dafa bokk ci suñu jikko wala moom lañ jikko woo hmm. mooy ëpplante mm-hmm. kenn du màggat ba bàyyi kenn du màgg ba bàyyi kenn du bëri leen bàyyi mm-hmm. ëpplante daal ba lañ ko bàyyi rek xataa suru maqaadir dem bàmmeel allahu akbar allahu akbar ki ku la gën a màgg gën laa bëgg xaalis <laughs> ku la gën a bëri li gën laa bëgg xaalis allahu waaw moom daal surtout mu maqaadir daal mooy tax ñu bàyyi ëpplante mm-hmm. loolu nag aw xas la wu yàlla xas doomu aadama moom ci boppam alhaakumu takaasur xataa suru maqaadir fi soo seetloo ni ki am ki am cent mille franc mu nga bëgg deux cent mille. Hmm. kii am million mi nga bëgg ñaari million. Hmm. sunum réew ngay dégg nit kuñ ne am na nangami milliards. Hmm. sunum réew. tey. ay milliards lu ko ñu doyee te mënu koo lekk. looloo ma jaaxal de. xanaa toj ak tabax rek ak jënd oto yu <laughs> ba xëy benn bés ñëw bëgg armé lee mu tëdd. allahu akbar allahu akbar. tey waroon ne kàllaa baax na rek. baax na. soo fa taalamoon da ngeen xanaa mas naa am da ngeen mas yeewu bi su ma bàyyi seen ëppalante gii. tey. waaye su ko doon laaj ba solo bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Pape Sarr Baye Fall eh, Oustaz ki ci topp mooy madame Ndour di suñu jigéen boobu nekk ca SITTC. Eh, di ko nuyu moom ñëw na itam indi ab laaj boo xam ne ma ngi ca sóoratu nisaa yi aaye 36. Eh, jàpp 37 mhm. di fi borom bi di waxee naan wa'budullaha wala tusriku bihi shay'a wa bil walidayni ixsaana wa bisil qurba wal yataama wal masaakiini wal jaari zil qurba wal jaaril junub ba aay ja jeex waaw borom sant la dañ dañu jàngal boobu hmm. nan ko jaam moom dong hmm. bu ñu ko jaamu ba noppi nag la ci teg mooy joxe ay àq joxe ay àq mooy na mbokk yi jot seen àq hmm. dëkk ndooy jot seen àq miskin yi jot seen àq ñu ñaari wajur ñoo njoor a njëkk a jot seen àq ginnaaw yàlla génnee mu taxaw Abdoulaye ba mu ko jeexalee rek. wala wóor bi laa dina la ca teg. mooy nañ jàll jox yàlla ak xam nga ñu bare ci ak yàlla nañu jox dëkkandoo yi mbokk gi waajur yi ñu ñëpp ko ci nekk njoxal see ak bu ñëpp jotee ak nag yow penc mi neex penc moo gis mu naqare wala mu am ñoom ñoom daa am ku ku jotut ay ak xam te mënta muñ. Mm-hmm. waaye su ci laaj bi. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf lool de am na solo lool. <laughs> macha allah Cheikh Tidiane Diatta moo ci topp Oustaz Alioune. Euh, moom nee na faratay maanaam daal julli euh, ak euh, solo si nga xam ne noonu la ko din ñi jox léeg ñu ne nañ julli ji am ku ne waxtu wi yaatu na maanaam daal ñàkk gi nga ko ñàkk a jox yitte la bëgg nga wax ci. waaw waxtu wi de moom yaatu na waaye julli ci waxtu njëlbeen gi nag mooy li gën. Mm-hmm. julli ci njëlbeen waxtu mooy julli ci moo gën julli ci deuxième waxtu. Mm-hmm. julli ci deuxième waxtu moo gën julli ci fin waxtu. Mhm. kon na waxtu lum mu yaatu yaatu rek nit ki daa war bu julli duggee rek. Mhm. aqimu salaata li dulloo ki sams ilaa xasaqi layl mhm. bu duggee rek nga tàmbali loolooy li gën. ndeysaan. kon nag su boobaa càggante gi di ñoom ñoom ci yow te amul benn gànt du jaadu su boobaa. ndeysaan. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Cheikh jaata ab laay mbay moo ci topp moom ci surtout hijri la dem aaya ji doon jàng du sori jeexital ga. Euh, ay 96 jëm noonu wal alladina yajcaluuna maa allahi ilahan axara fa sawfa yaclamuun wa laqad naclamu annaka yadiqu sadruka bi maa yaquluun foofu la bëgg nga ñëwal walaay ndeysaan borom bi nee na ku fi boole yàlla ak dara di ko jaamu ëllëg dina ñëw nga xam ne lii nga doon def du noonu mm-hmm. mu ne yonent bi nag xam naa ne pénc mi liñ ciy wax ci wax di baaxut dina la déranger allahu akbar waaye euh, mu ñëw rek. Hmm. bis dina ñëw ñoom ñëpp nga xam ne li ñuy def du noonu. macha allah waaye sa koran ci laaj ba am solo bi. jërëjëf ci tontu lu am solo loolu oustaz ñu jaajëfal ko ci kon daal moom daa mel ne kuy dalal xelam naan ko na sa xel daal mbir yi dana leer. waaw dana leer nañ. Mhm. <laughs> sàcc mu raw Mbaye dégg nga loolu <laughs> Imaam lii kon ñu ngi koy jaajëfal Oustaz te di la jaajëfal euh, ki ci topp itam mooy Soxna Adja Niass di wootee fële ci Asalem moom sóoratu mhm. Arrahman la dem ak ñun nee na aaya 46 euh, daal la bëgg nga ñëwal ko ci jëm suuf te mooy tàmbalee nee na fa suñu borom di waxee la jëm ci aljanna ya wali xaafa maqaama rabbihi jannataan fa bi ay alaahi rabbikuma tukadibaan saa waata afnaan ba aaye yooyu daal la ba nga ñëwal ko ci dëgg la jërëjëf hmm. sootu rahmaan borom subhaanahu wa taala day day lim xéewal lim na ameel hmm. wala xéewal lim na defal ba ñuy wax ne wali man xaafa maqaama rabbihi jannataan hmm. ku ragal wàccuwaayu boromam ragal ni boromam toll ba tax muy moytu ko tooñ bu ëllëgee dana ko fayee ñaari aljanna jannataan moom moom aljanna ji moom aljanna jee ndeysaan bu ko neexee yendu ci ji fanaan ci jële bu ko neexee fanaan ci yendu ci jële mi ngi mel ni borom kër bu am ñaari jabar yu juboo te ñoom ñëpp ñu jub wala man xaafa maqaama rabbihi jannataan mhm. Mhm. yàlla mun na ump mooy sukuraan. jërëjëf Imaali dégg nga tontu la am solo loolu. am na solo loolu wax dëgg yàlla. Mhm. damaa gàgg naa ne tukkulóoru baay ma tëpp ah. waaw tukkulóoru baay waaye des na tuuti alin Badara Diouf wakaam jaar na mhm. ci diggante bi waaye dafa dagoon euh, ki nga xam ne mooy Pape Si moom itam di woote fële ca université Gaston Berger dafa daggoon. Mhm. Moussa Wade dooru ñëw moom indi woon na ab laaj oustaz muy sóoratu almasad di tabar yadaa abi lahab la bëggoon nga ñëw ci. jërëjëf Tamba Jada Abi Lahab day aw saar la woo xam ne borom subhaanahu wa taala moo ko wàcce woon tontoo ko Abu Lahab hmm. ndax yonent bi daa woote waa Màkk yëpp wuy si ko. mu hmm. ne leen ndax su ma leen waxoon ne nangam am na ci pénc mi dangeen ko gëm. ndeysaan ñu ne ko waaw yow bu soo wax dul dëgg. mu ne yàllaa ma yónni. Hmm. am te góor ña góor gu jóg ne ko waxoo dëgg. yàlla nga tos kare. kooku nag ne Abu Lahab bi ne ko yàlla nga tos kare suñu borom ne ko tos kare nga. yow mii ko nag ñaanoo tos kare yow yaa tos kare. te it tos ko rek sa kanam lay nekk nekk sa ginnaaw yaddaa abi lahab bàyyi ko rek hmm. sa doom yi liñ bari bari duñ la jariñ sa alal lu bari bari duñ la jariñ dangaa boole ginnaaw du mu tumu sa jabar wallaahi waaye oustaz moom yorent bi la jàkkaarlool ci boppam wax ko baat boobu moom aboo lahab moom lan moo nekkoon problème am li nekkoon mooy hmm. xam nga kii woote njub hmm. ki nekkut ci njub kii woote njub daf lay weer cey Mbacke. waaw oustaz. ki ki nekkul ci njub. Hmm. ku jub ci wetam dañ koy weer. dëgg la. oh. ci jub bu ñu ci nekkoon maa ngi yow ak sa Aliou Mbaye euh, ñu nekk ñu ñëpp. Hmm. mu doon gudd ñu fay lamp yi bu ñu neexee suñu ko ne waaw. Hmm. am déet. waaw ah, bu nag di taali lamp ba. ñu ñëpp a koy ñëpp a koy song. kooku kay sama bakkan laaj rek. <laughs> nga dëgg du ko fi taale de. Eh, te ku nekk ku ci njub ku nekk rek ku jub daf lay tey mais Oustaz mbay fi Oustaz dugg nii dafa mel ne dafa yaatu lool te am solo lool parce que Oustaz danga nga gis koo xamante ne day nangoo liggéey lool liggéey bi jural ko mu am ay teraanga am ñu koy sikkal te ñoom dañoo nanguute liggéey ndeke njàmbaaram gi day feeñal seen yambare gi jeex na jeex na <laughs> adduna sépp nag ci la tëdd mhm. dëgg la mhm. Mhm. koo fi gis muy contour nit mbaa bi wax ci kaw mën naa naan ak nangam moom daf ko déranger waaw mooy fii waa jaar nii fi la war na jaar jaaruma fi ma bàyyee mu dem rek dañu jàpp ne kon moom mi man naa leen naa leen wan ne ko oh. defee mu mu layale ko oh. hmm. ah lii moom ku amoon bigu or da ko ciy bind wax ju neex la <laughs> walaay waaw am na solo lool de. Uh-huh. de njub daal. Hmm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa déranger woon yéefar yi. dëgg la ndax dañu fa yàgg lool. waaw nekk seen bakkan. Uh-huh. di def lu leen neex naan sàngar jël xaalis ni ñu not ñu def leen i jaam mhm. su amee ku ñun loolu baaxul ndeysaan <laughs> nu ñuy def wallaay wallaay mu tey mhm. ba léegi sii nii di nga gis ku baax ku nangoo góorgóorlu sopp jàkk ji doog ñu xale bii ni mu a liggéey mhm. dafa def nangam dafa nangam ngay muuroo di xale bu jigéen di góorgóor naan yow doxal rek sa muuraay gii ah, fekk mag ña la naan sa muuraay gi baaxul ñoom ñoo ngi ne fàng seen lépp na ci biir da leen déranger la da nga di <laughs> am na solo lool oustaz jërëjëf jërëjëf foofu am na solo te itam mat naa bàyyi xel ndax euh, ak njàmbaar day feeñalug yaafus te olof nee na tàgguwaay woo gis xasuwaay la xasuwaay la dëgg la <laughs> macha allah eh, jërëjëf lool moo nekkoon ab laajam moom musa wadd ki ci topp mooy Boubacar Ba eh, moom suratu eh, nuur la dem ca aaya 35 ja nee na allahu nuuru samawati wal ardi masalu nuurihi kamiskaatin waaye neen daal ba mu demee ba ca biir borom bi da caa wax naan kawkabun duriyun googu yu xalu min sajarati mubarakatin zaytuna la sarqiya wala xarbiya nee na daal foofu la xaw a am ak am lënt ci moom mu bëgg nga nga teqantalal ko ko lu fi leer mooma. tey. Mhm. lu fi leer mooma. waaw. lu lu ku ku jaarul fi jaar joxe leer nag doo am leer. tey. Mhm. mu doon misaal nag leeram ji. Mhm. ca jamono yooya. mu ne muy dem ba agsi ci ka annaha kawkabu duri. duri xeetu bidiw la boo xam ne dafa nekk fu xat. ñu wër ko ba leer gi du senn fenn. ñu koy ñu koy taal nag min sajarati mubaraka mhm. c'est-à-dire matière bi nga xam ne ci la pétrole bi jógee mhm. garab ji ko jur laa sharqiya wala garbiya garab ji ko jur laa sharqiya jógewul Occident jóge jógewul Moyen-Orient mhm. wala garbiya jógewul Occident <laughs> c'est-à-dire euh, pétrole boobu américains yi mënuñu koo génne arab yi mënuñu koo génne waaw maanaam pétrole ba taal lamp bi yàq boobee waaw arab yi nuñ koo génne américain yi mënuñ koo génne dëgg du pétrole ba ca Kayaar du ba ca feneen jeex na tàkk yu wax dañu mu mubaraka seytoona laga xee walaa xar bi wallaay ndeysaan cey pétrole bi sax yàkkaadu seyto yu diw tuuti ko moom taal boppam laa ilaha illallah jëruwul alme jëruwul brikat waaw lu yàlla bëgg a wax ci oustaz ci loolu ay pétrole bi taal gi yooyu lu lan lay làkkati fii waa adduna lay waxal. Mm-hmm. ci jàpp ne léegi lu leer ci adduna rek boo ko américain leeru du leer wala japonais yi. Mm-hmm. mu bëgg la man nga xam man ngeen a demal seen bopp loolu la ñu bëgg a wax. Mm-hmm. man ngeen demal seen bopp gëm leen seen bopp. waaw man ngeen demal seen bopp demal seen bopp. Ah, waaw waaw. li fi ko leeral kon dem leen. est-ce que na sa benn mbokk mu ñuy wax euh, Imam Dukuri. waaw ma nga dëkk ca Malicounda. ndeysaan maaleykum naa bi waaw bii da def nañ waaw ca mu ngoog bii wax na lu yàgg ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa firin tey de mu ni ma daal naa la gërëm ci turam xamal la ne daal <laughs> wax dëgg yàlla euh, sigil nga sigil nga yi daara yi alhamdulilah euh, nañ nañ ko bokk ñun ñëpp rek daara ji jànn la tabarkàlla ndeysaan mbokk mu baax la ma nga ci RTS mm. ñoom Sadio Mané buñ paasante duñ dugal dëgg la mm. <laughs> lay wax nga dëgg. <laughs> wallaay ku ne am nga sa club booy football waaye bu équipe nationale soxlaa rek ñoom ñëpp daje. maa la waaw sol benn maa yoo tuddi gaynde di paasante rek <laughs> macha allah am na solo Oustaz Alioune ki ñu topp mooy tukkulóoru baay. waaw Oustaz tukkulóoru dafa ni laaj bi mu bokk ak euh, mbokk mi. Mm-hmm. Euh, moo doon laaj bu alaaw nuur samawaat bi li mel ne na ñoom ñaar ñoo ci yem xalaat yaakaar ko li nga doon na ci doy. Mm-hmm. Hmm? incha allah mën na ko doy la waaw. mën na mu laaj nag ci suutul an am. aaya 91 mu ni wa maa qadrullah xaq qadrihi is qaalu ma anzala allahu ala bashrin min cheyin lay ndeysaan yàlla nee na hmm. xamagu leen ma hmm. wa maa qadrullah xaq qadrihi xamagu leen ma mooy ne def bokk ñi ko xamut ñu naan yàlla waxut yàlla waxut kenn dara yàlla waxut kenn dara mu ne wax naa ba tey da ngeen maa xamul rek. lay des wa maa xadru laa xaq xadri. Mm. waaw bu lay te waaye ko say mbokk takk say tànk lax say bëndun. wax nga foo ko dugal ci biir dañ sobi ceeb lekk kenn fay xam xaq xadri kenn may xam yàlla. ndeysaan mm. ndeysaan. walaay ndeysaan. ci moom nag ku garaaw la léeg-léeg day waxee nu ne. waaw waxoon naa day wax ci jalaal. waaw. di wax ci jamaal. ndeysaan. di wax ci jamaal li wax day lépp day neex. Hmm. ndeysaan. waaye bu jalaal ji ñëwee ku mu xupp nga daw. jay. Hmm. <laughs> ndeysaan est-ce que est-ce que jooju li ci yéeme mooy ja ko jiitu xam nga ca la doon waxe waxam ju rëy ja ba naan ulaayika alladina hada allahu fa bi hudaahu muqtadi. Hmm. walaay ndeysaan. daal di daaneel rek daal di song wamaa xadrullah ak xadri. daal di wax waxul man anzala alkitaaba lazi jaaha bihi Muusa man daal xeetu waxinam communication yéeme na daal. <laughs> ulaa'ika llaziina hadaa llaahu mm. mm. gaaya gaaya waaw ñam joxoon alxukuma mm-hmm. jox leen alkitaab ndeysaan jox leen annubuwa mm-hmm. Mm-hmm. ñooñu ay gaay yi aataynaahum wallaay aataynaahumul kitaaba wal xukma wan mu ne ulaayka ñooñu mm. ñooñu laa si am ndeysaan sama gaay ñoom laa jubal ñoom rek laa si am ndeysaan fa bi muqtadi boo bëggee sëriñ yow yonent bi defal ñooñu ay Mhm. kenn mus cee dem ci pénc ma naan joxal fay la ma ma fay la ma ma ma ma ma ma ma jubal leen. Mhm. ne waaye nag pénc mi nag dañoo xamul yàlla dëgg dëgg xam ko. Mhm. ndeysaan xamaguñu ma. dëgg la. tabarkàlla jërëjëf ci laaj bi am solo bi. macha allah am na solo oustaz ci tontu lu am solo li. oustaz Mbaye ki ci topp mooy Cheikhouna Sylla Sy Mbacké. ma ngoog euh, ca Colobane lay wootee waaye indiwu tey ab laaj oustaz waaye indi nag ay commentaires yu xóot yu rafet. yu ja waaw yu jar a jàng yàlla. ñu ngi ko doon dégg ñu ngi ko ciy jaajëfal. baax a baax a baax ndeysaan lépp rafet na macha allah. di ko xamal ne ko li woon a ngi fi ñi ko ñi ko def ñu woon a fi dëgg la mooy loolu muy misaal ci wax dëgg geeg dëggu geeg yi mu mën a jur. Mhm. waaw yàlla na yàlla na ñoom. amin mhm. baat boobu sax damay dégg nga di ko faral di wax ñi woon eh, eh, la woon a ngi fi. li woon a fi ñu ko def na woon a fi nekk. waaw loolu mooy lan. waaw <laughs> mooy àdduna li àdduna fi ne dara soppi ko ci. jant baa ngi fi weer waa ngi fi biddi yaa ngi fi. ñi mhm. mag ñi defoon ba jamono mel ni mel. Mm. la ko mënoon mi ngi fi. Mhm. ñu mel ni ñoo fi nekkut ba def la fi nekkoon nekk fi rek. wallaay wallaay ndeysaan. waaw waaw kii man dëgg la. waaw ah, kii man dëgg macha allah mhm. waaw mu koy moom no comment mhm. kay xanaa góor rek te ni mu ko waxee sa daa daw yaram ndax xale bi gënoon tuuti ci ñe yoon jàngi waaw agresseur di ko yor yor mu ñetti dërëm mm. waa ji ne ko lu tax ma wax la rek nga jox ma ko sama yaay moo ne woon bu ma fenn ndeysaan est-ce que allah allahu akbar loolu jeex na loolu am na solo kon nag yaay yi am nañu responsabilité mhm. waaw waaw kullu kullu mawludun ay yóoloolu ba nga daan wax moo ca am Faabu Wango lay ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal Modou Mamoun ñëw na mooy ki mujjee te doon wootee fële ca Bergamo moom itam sab soppe la mi ngi doon nuyoo di wax ne jombut gisante woon ngeen foofa wala am na ku mbokkal kër ku la gisoon indi na ay commentaire am yu rafet ci jotaay bi waaw maa ngi koy bëggee di bëggee waa Bergamo yooyu yëpp ñoom ñoom am loota ñoom ñakoy organisé ñoom nabi gaajo ñu mel ni ñoom te nekk te barab ba mm-hmm. at mu yàlla yàlla gën ñu see jàppale te koo man macha allah. amiin amiin te ba bañ cee bàkku. amiin amiin yàlla te bañ cee bàkku. <laughs> macha allah macha allah am na solo. imaam li dafa mel ne loolu mooy laaj. waaw daa mel ne loolu moo doon moo doon laaj yi. Mhm. loo bëggoon dénkaane bala te laaj ñu la ko. <laughs> waaw mooy mooy rek waa jaajëfal leen waa góoral leen. ndeysaan. Euh, waa jàkk jaak nii taxaw nag léegi ne naa ñëw daal di génn ñu daal di tàmbali waxtaan bi. waaw waaw onze heures trente jàpp treize heures trente incha allah. incha allah maa ngi jaajëfal di am mbégte lool ci liggéey beeg biir koor geeg ci aju yëpp macha allah. Mm, jërëjëf Sall jërëjëf Sall. Euh, di di lu jégalu ci léeg-léeg absence ñoom seen yooyu waaye xam nga rek euh, ni mu demee. tabaar daa mel ni campagne bi campagne bi am na résultat daal ndax pare ci campagne dem di ubbi ji ay jàkk ci xeeti résultat yu baax yi la bokk waaw xeetu campagne bi yëngatu bi moo bi jeex na. waaw nañ ko gagné na élection yi. <laughs> macha allah ndeysaan seetaane nag mi ngi mi ngi respecté ko yuuxoo ko. Ah, kon kay waxal camarades yi waxal camarades yi benn waxal waxal yi nga xam ne wote nañ ta àndoon nañoo yow ci meeting bi ñoom oustaz Mbaye ñi nga xam ne ah. ñoo nekkoon sa point yi ñoom itam di jaar ci ruq-ruqaan yi di ko toj oustaz. <laughs> waaw waaw moom xam nga xam nga rek suñu mbàkk mi nga xamee affaire yi. ya euh, noonu lay doxee saa su nekk. <laughs> très bien. Euh, je que. camarades yi <laughs> dëpp nañ ci wate yi rafet na jaar na ci yoon. et puis tabaxkàlla. li ci rek mooy continuer nag liggéey macha allah. Mm-hmm. te lépp jaar jaar ci yoon te te te rafet. <laughs> ñoo ngi ndokkeel ñëpp di jaajëfal alayhi salaatu wasalaam jaajëfal camarade yi ak madame yeeg monsieur yi. Mhm, ndeysaan <laughs> macha allah. Oustaz. Eh. Ah, bi <laughs> bu ko nettalee ci làkku lébu. ci làkku <laughs> tànt bi doon xar. ndeysaan ndeysaan. jërëjëf oustaz jërëjëf jërëjëf waa kay jërëjëf dala maanaa macha allah merci beaucoup shukran jërëjëf oustaz ñu jaajëfal ko bu baax baax bu baax a baax waaw eh, sama ji sama mbokku mbaax ma ne faal Fall waaw ngi ànd ñun ci waxtaan wi ndeysaan eh, ku sopp jotaay bi wax dëgg yàlla ndeysaan jërëjëf Mbacke waa ji daal mi waaw dafa neex. dafa neex Oustaz daa yor yu neex nag. <laughs> yu neex yoo xam ne tubaarkàlla. ñu ngi leen di ziar bu baax baax. ndax day jegeel discours bi ba mu jege ñu ngay ree di jàng. waaw ngay ree di jàng ñu ngay ree di jàng waaw. te xale bi waaw ñu dul ree sax fi mu ne ñu ngi muuñ waaye ree leen te bàyyi ngeen def. Ah, waaye man <laughs> bëgg a ree pare concentré wu yàpp ne boo ree. <laughs> Mbacke adduna bi adduna bi ku yóbbu rek suukar sa suukar sa café. ndeysaan te xam ni loo fi ba mu dérange rek yàllaa ko bàyyi noonu. wallaay ndeysaan. fi ne mm. loo fi seen ba mu mel noonu. Mm. yàllaa ko bàyyi noonu mel. wallaay ndeysaan bu ko neexoon léegi mu waaw comme yàlla daal nee na dee leen ree tuuti tey jooy lu bari. Ah. waaye waxut bu leen ree. Eh, reeta bañ a reetaan baax na reetay jàng am na solo rawat na nag yoo xamante ne anamu misaal la waaye njàng mu am solo ci nekk ci lu ñu mën a jàpp <laughs> am a solo dara gënoon neex bi mu jàng français waaw eh, ne ma commencé lire français <laughs> nee na romb benn waaye bu bind ci miir bi daal ni góoroo góor maaman waaw Eh. ustaas nee na ma jaar fa daan ni ko ba mu des man ya <laughs> mu ne ko mu ni ko yow kan <laughs> waa ji ne ko boo boo nañ fi daje <laughs> suba dix heures waaye nee na ba mu ñëwee ustaas ànd ak benn xaritam uh-huh. di ki fekk waa ji nekk ñaar faal moo xam ni am si gi lagg waa ne mbaa du kii ndeysaan mu kii. moom la de mu mm-hmm. salaamaaleykum mu la dama la doon nuyu rek. <laughs> daal di rek jàll mel ne du moom daal. macha allah waaye am na sol yëpp ci communication bi Serigne Cheikh nan laan def Mbacke. Mm-hmm. Serigne Cheikh. bu mm-hmm. musaan toog ba ni asalaamaaleykum. taajante bi bëgg a xar. mu teg ci benn waxtaan bu gàtt nit ñi. surasi waat mu. moo bu ko defee message am. dëgg la. yal na ko yàlla gërëmal amiin yaa rabbal aalamiin waaye nag ndeysaan waaw lu jiw a jeexul lu jiw a jërëjëf jërëjëf Oustaz ne kon buur na laaji auditeurs yi jeex na noppi nañoo ak Oustaz Alioune Sall 14 heures da nga ñëwaat ak mbokk yi waaw incha allah damay dooraat yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam léegi saxaaba yi da nga koy staan bàyyi ba ñu ñëwaat saxaaba yi dañ bàyyi ba ñu ñëwaat ndeysaan bu ñu demaatee bu fekkee <clears throat> yàlla dogal na ñu bokk ci dem mbàkk ba ndeysaan ci saxaaba yi ci kan nga ci kan nga kii woon saxaaba yi maa ngi woon ci xare Mu'tata mhm. euh, Jaafar mhm. Abdullah ibn Rawaha ak Sayd ibn Harisa ndeysaan seen xare bu metti boobu nga xam te dañ ci dagg loxo ñaari loxo ja jaaxfar yi. ndeysaan yu ne tipp loxo yi mu ne benn loxo bu dagg rek du ma tàggale ndigal sama mag jama jox. ndeysaan daal di koy yóotu ñu message bi jàll ci yonent bi si saa si. Mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mu dem ci njaboot gi. allahu akbar daal di nuyu soxna si daal ma njaboot gi. Mm-hmm. soxna si ni ko jàkk mu ne ko ndax da nga dégg dara ci sama jëkkër. ndeysaan mu ko waaw mu ne ko lu xew. mu ne ko yàlla dafa dogal li ko neex ci moom. soxna si jooy. ndeysaan tubaarkalla muy histoire bu doy waar daal. macha allah macha allah dugg nga ci duggin wu am solo déggoon naa la ci Salmaan itam ci koor gi. waaw Salmaan euh, Sina Omar laa euh, ñëw ci Bilal. waaw ñëw ci Salman. waaw Bilal nga doon tuure ay leer. waaw Bilal de moom kenn mosu moom kay kenn mosu ko eh, gis. Bilal dégg naa Bilal ñun ñun ñun ñi ma ne ci waa ji de. ñoom Mbacke boo xoolee mag ñooñu li ñu daj. mag ñooñu li ñu daj. sa xarit ba Babacar Diop. waaw dafa fekk moom tam moom ñu ngi déglu. Babacar Diop RTS bu RTS waaw sama xarit mi ngi woote bërki démb di ñaawlu euh, rapport boobu nga xamante ne benn ONC def na ko ci daara yi ak enquête boobu nga xam ne moom la def ma ne ko sax danañ ci def waxtaan xam naa buñ ko gëstoo ba noppi rek danañ ko fii ci table ñu waxtaan ci insha allah loolu day wane ne ñoo bokk mbuus daal ku baax la ku baax Babacar ku baax noonu président daal la ma joxagul waaw néew na woon na ma sax ni nee ni mi ngi photo bi xam naa da nga gisagul waaw boobu xam nga dama am lu ma ci def daal da nga ci war a dóor waaw ah comme yooyu ñoo bokkoon coalition allah waahidun euh, mu dénk ma rôle bu am am solo waaye depuis ma génn ci coalition bi ba léegi moom ak soxna si yëpp nañ ma ne daal yow demal ñu dem man li ma dal métti walla <laughs> jërëjëf ah, yàlla yàlla mottali daal amin amin yëpp incha allah moom laa bëgg a tàmbali mhm. bu defee mu toog dëppoo ak tabaski gi mhm. dëppoo ak aj màkk gi nga xam ne Ibrahima nation la mhm. Ibrahima nation la nga xam ne moo représenté peuple yëpp mboolem diine révélé yi wàcc ci kaw yëpp mhm. bu ci nekk da nga reconnaître Ibrahima mhm. alayhi salaam alayhi salaam jërëjëf macha allah loolu am na solo mhm. boo ci noppee danañ ànd ak Oustaz Alioune Sall ci tafsiru Qur'an bi euh, suratu Hujurat xaalatil arabu amanna qul lan tu'minu bu daanee lee ñu ànd ak euh, ci xamtu waaw ci ci xamtu li mooy jotaayu daara yi waaw jotaayu daara mais ñu koy na solo loolu am na trop dëgg la bi nga fi jaaree keroog de laa xam ne nag sa waay sama waa gaa yëpp naan ma oustaz Mbaye man leen man dootuma ko dugal ci xamtuma koy nangu <laughs> ma bañ <laughs> na yem rek ci bàyyi seize ji seize heures xale la <laughs> macha allah Oustaz Mbaye jërëjëf. waaw imaam Momar Seck. waaw moom guddi gi ngeen di ñëw. le grand doyen. waaw maa ngi koy nuyu incha allah moom tamit dina ñëw bu soobee suñu borom. Mhm. Euh, ci al minbar. Mhm. ñooy àndaat bu soobee suñu borom. Mhm. Euh, muy imaam bu baax mi ngi lay nuyu. macha maa ngi koy fay. di nuyu imaam Moustapha Niang. waaw bu Sirmang. loolu yow Sirmang voyage ku baax ku jàmbaare. jàmbaar la kuy jàppale daara yi itam di jàppale nit daara yi di jàppale itam ci aj màkk gi. man mm-hmm. eh, ngaa wax ne jafe-jafe bu mu am wala lu koy nuru rek. Mm-hmm. jàppale aw nit ak nangoo boote. ak mm-hmm. doon jaboot moo ko rek. na ko yàlla jàppale. te yokk koo sàmm amiin sëñ laal nga foo wax ne de joroon na sëkkub émission. xam naa ni eh, ku mel ni imam Moustapha Niang ci doylu ci xam-xam ci njub. ci maandu. suma ku ni mel. ndeysaan waaye naa ko lu juróomi at waaye nit la koo xamante ne nii mën naa bind livre ci moom ndeysaan lu ko waaye gën a bëgg mbaay koo yow dëgg la dëgg la di muy sonne ci ujaaj di ko sonne ci askan wi amu gisuma ku ko def te yu neex lay bàyyee gars yi te yu ne yu da ngay ànd ak moom mu yóbbu ab groupe ñu dem tawaafal leen ba ñu paree ñëw toog waroon aat ni ko am meneen ñëw ko ne ko sa ñu ne dañoo bi ngeen dem dëgg la dana nga am nangam dëgg la dañu bëgg dem tawaaf ku dox digganteem ak mu dem ak na mu fa war a demee. waaw di nga ko layoog sa borom. allahu akbar jërëjëf. Euh, ku ko ñemee mhm. ku ko def ku ko ji doo réussir. macha allah parce que dafa loo xam ne nii. Mhm. Euh, kenn xamul lu mu tudd. Mhm. kenn fiiraange la wala si saa wala rek kenn xamul lu mu tudd. mu sant naa la gërëm la jaajëfal la merci jërëjëf. cant ngërëm ñeel na la borom Dalifoor jëf sant nañ ñëpp di leen jégalu baax di leen ñaanal delluwaat di sàkkuwaat ñaan Oustaz Mbaye itam xam naa bala ngaa tàggoo it ñu ñaanal nag euh, kilifa kër gi di Baye Omar Gueye ci taxawaayam bu rafet ci koor gi gunge bi euh, confiance beeg mm. euh, disposition yi nga xam ne lu ci aju rek bu ko yëgee mu faju mm. moom itam ñu sant ko gërëm ko te ñaanal ko xanaa ñaanal moom dañ koy ñaan ko ñaanal bu mm-hmm. un jeune xale la mm. waaye xale yi nga xam te ne réew mi yaakaar na leen ci la bokk mm-hmm. ndax wàllu yi mu te nii muy bëtu réew mi di nopp réew mi muy rajo bi doo ci dégg lenn nit kuy présenté émission di ko ci def loo xamante ni dëppawul ak éthique wala dëppawul ak ngor wala dëppawul ak diine mm-hmm. donc lool nag man bokk na ci li ma ko gën a nawee mooy loolu sukkuraan yàlla yàlla sàmm jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk yi ñu doon déglu kon ba 14 heures par ci la ñuy dellu siwaat insha allah di wéyal jotaay yi rek ba 16 heures insha allah 17 heures bokk jërëjëf